pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na yow number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye fàttewuñ fa diw yi sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa indi cuuraay cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jakarlok monument bi wala nga joko Quality Jasna si 2500124, 01 ak Quality Jasna taral sa bop taral sa nek white degal sa alaji as di ko mu ko ñu bugg a jottali ay kàddu yu gàtt jógee ci mbokk gi li ci jiitu gannaaw way sante yàlla ak yónnentam santa suñuy wayjur suñuy maam suñuy maamaati maam suñuy maam ñi nga xam ne li ràbbu tey rafet ñoom ñoo ko ràbb waaye ñu ñaan yàlla mu may ñu ñu nit mu yàgg gaaw yal nañ rafetal suñ njaboot mën a continuer liggéey bu rafet boobu mbokk ki ñoo njëkk a ci jotaay bu nu mel ak mooy ki yàlla jiital ci jamono di président Adama Mahmoud Baro mi nga xam ne ci nangutoom ak coobareem ak yaatam ak njobooteem la jotaay bu nu mel naam àddina yépp ko doon mébét ndax ñépp Omar Jallo eyoo na lu ci njàmbaaram ci taxawaayam ci rafetalam ci jokka mbokkaam waaye ndok bam dajee ku mel ni président Adama Barrow ndax munoon naa dajee keneen koo xam ne suul ko Gambie sax dina jafe wala ñi ñëw ci dëj ñu néew lay doon bañ toogee ci jaale bi ñu xalaat xalaat bu nu mel ñu junja ko président président xamal na ma ne lu ëpp li leen woon ci xelam ndax digganteem ak Omar waaye kilifa du dige kilifa du dige saka ci mbooloo waaye ñu ngi koy xamal ne kontaan nañ ci jëfam ju rafet ji askan bi yëpp du famille bi rek waaye addina yëpp ñoo ko ko ndokkale ci lu mel nii ak xelam bu rafet ndax président bés boobu bañ dooree mu ne du jël kàddu du wax ndax ministre Amat Ba wax doy na ko waaye ñu dem ba ci kanam mu ne dina wax maa ngi dem doo ma ne ko ah nga doo wax nga ne wax mu ne ma waaw ndax su ma digganteeg OJ it ma koo noppee foog ma wax mu wax fa kàddu yu gàtt yu am solo jooyloo ñëpp kon président Adama Barrow jërëjëf yal na la yàlla yàggal yàggal sa teraanga ak képp la ko kon njabooti OJ dooree ko ci soxnaam Awa mi nga xam ne Baye Faali Jallo Kunda la waaye Faali mboolem ñooñu oojee lañu yàlla mi ñu tiim xam na ne maa xuloo rek lañ njëkkee musu ñoo juboo loolu la yàlla dogal waaye ba ma ñàkkee pexe nag dinaa ko gërëm tey ndax eyoo na ko ndax oojee jaaroon na fu gën a liggéey oojee ak taxawaay oojee ci réew tax na Awa Diop sax bokk na ci jigéen yu néew ci Gambie ñi mos NIA mos kaso mos toroxtaane bu ne ñun xam nañ ci dara am na jabar yoo xam ne bu doon ñoom la bu dem bi jafee rek ñu ne jàll jéeri fii lañ mënoon a yem nag waaye Awa deful loolu kon Awa Diop jërëjëf ñu ngi lay ñaanal yàgg sa njaboot loo ci am yàlla na barke yal na OJ bàyyee Gambia OJ yu baree baree bari OJ yu góor ak yu ñu ngee gërëm it mbokk gi yëpp Bari mi toog mi jógee ba di suñu rak ñu bokk benn maam xamutoon ne lii dina xew waaye yàlla mi du jiw moo ko ñor di ba mu fekkee ko ndax mu ñëw seti Cheikh Ibrahima Niass Haydara ànd seeg eh, suñu ambassadeur ca Mauritanie Cheikh Omar Faye yàlla ñoo di ko boobu mu teew te itam suñ doom gërëm na len na ci xarit yi OJ waaye olof dafay wax ne ku lim dese kenn mënta lembe limbe dajal waaye li ñu gën a yéem ci jikkoy OJ OJ mu sa yëg ne ministre la OJ mu sa yëg ne borom palaas la OJ mu sa yëg ne seti waliyu la te ay maamam yëpp ay waliyu la amul benn maamam bu bu waliyu bu bawul jumaak jàkk kookoy Omar Jallow kookoy seti Mamadou Matel Jallow kon bokk ci cër yi ko gën a yàlla gën a te yàlla nee képp ku mel noonu dina la tàbbal àjjana mooy lan mooy oyof yónnent bi nee nañu rëy mooy malaan bu yàlla suturee boppam yónnent bi nee na yàlla nee na ku ko dina la rëy sànni la safara mu teg ci ne walaa yu baal yi yàlla du yëg sax def waaye mu ne ak nu nit ki mun a soo oyofee yàlla bàyyee na li des yëpp ndax li des yëpp soxlu ci dara yàlla lim am yëpp réer rek la ci soxla nga yëg ko te réyal ko te Omar ni ko doom ji waxee soo demee këram ooñee bu sa añ moom man daf ma daan jaaxal sax ñi muy toogal ay maçon ay gaadimam ay balekatam ay pompakatam daraay koy sa taxuñ ma wax kuy yalwaan tombee ci bunta bi laara bi laara muy la kaañañ waaye loolu maa ngi foog ne ci maam yi la ko doone ak suñ bàyyi ja alaaji Moodu Musaa Njaay yal na ko yàlla yërëm soxla soo uti woon fekk muy lekk mbuuma bu naxari boobu soo ci mos du ko faj waaye soo cee mos rek kontaan kon mbokk yi rajo dafa neex élimaan dafa ñeme rajo li man xam ci OJ yëpp su ma ko fi buggee wax ñu indi fi mbuba mii ma sol yàlla xam na ne dafa bu ñëwaan Amérique Washington suma kër la daan fanaan benn fay jógee yàlla def mu ñëw fa aj ko suma wóorloo muy dem fàtte ko mu dem ba àgg siyaatul ma kool ko ne ko bàyyi nga sa mbuba suma néeg mu ne ma jël ko ba may la ma ne ko jarta yàq wax bi kay doo ci jot bi moo tax ba léegi sax ma ko solee awa jom moom boo bi nga sàcc kon koo koy Omar waaye président Barrow jërëjëf ràññee nañ ci jotaay bi ay xaritam yu dëgër ca ndaw ba tey Alaaji Touré di borom kër yi former vice président Aïssatou Touré bokk na ci Alaaji Ousseynou Dabo moo ñii ñoo bokkoon benn classe benn wàccandoor soo déggee OJ ci plateforme yi politique nga ne kii fu mu la seeg Ousseynou Dabo ñu reyante waaye boo ta ñëwee fekk OJ ak Ousseynou Dabo ci beneen jotaay nga jàpp ne ñi ñoo bokk ndey ak baay Ousseynou daf ko daan ooyee goro bu ndaw ndax OJ goro la ci moom nañ jàngee ci ñii nañ politique nañ diine waaye gella na ko nitee jiitu bu ñu diine xaajale bu ñu politique xaajale buñ noonoo réew mi suñuy tal yooyu dañ am jàmm moo tax yàlla fi jàmm sax assalaamu aleykum wa rahmatullah yaa imaam jërëjëf ehm, ñu ngi ñaanal suñ papa suñ oncle Omar Amadou Diallo fu mu jëm yàlla yàlla fu jëm gënal ko ak képp koo xam ne fekk na la si bàmmeel tey dana la yàlla suturaal xaral leen àjjana ñu oo alaaji Mouhamed Lamine Sakho الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون Your Excellency President Adam Mubarak, Your Excellency Vice President Muhammad Jalal, the Speaker of the House of Parliament, Mr. Chief Justice, Imam Razi of the Gambia, all the Imams that are present here today, and all the distinguished ministers that are present. Well, we are here today paying the last respect to Omar Ahmad Jan, who is laid here before us and who has, throughout his life, created, created history at every stage of his life. Even at this testing time, when we are to part with him, Ahmad Jalal is again creating history as a last gift to his countrymen and to the international community at large. I am among his closest friends, a relationship that has spanned over 60 years. And throughout this period, the relationship has remained solid and unwavering me and Omar Ahmad we don't refer to each other as Muhammadu Saho or Dudulet, as I am popularly known in this country, but we refer to ourselves as boy, boy. Even on his sickbed, in his last days, when he was virtually unable to sleep or unable to speak, if I come into his room, he straight away awakened. He would see me and recognize me and tell me, boy, I tell him, boy. My relationship, 60 years relationship with Omar Amal Jal has developed over many, many activities, both at the social level, at the family level, I am here representing Omar Ahmadujada's friends, among which the family here have mentioned in their deliberation. Alaji Babali has mentioned some of them, and I feel honored and privileged to be the one chosen to speak on this August occasion, and I wish to thank them for allowing me to do so. My relationship with Omar Ahmad Jalo started when we were at the school age. When we were very young, we went to the level of maturity by which we were to get into matrimonial life and it was Omar Jallo who was the driver of my marriage to my only one uh, wife, with whom I have been together for over 50 years. I was with Omar Jallo for 60 years. He was able to give me his first present to my life by getting my father to arrange the marriage to my current wife, and I always thank him for that. Well, the background is Aladi Amadu Jallo, the father of Aladi Omar Jallo, and my father, Aladi Muhammad Saho, were indivisible partners. They were among the elders of Serekunda. Together, with the father of uh, Alaji Alunjari, the current chairman of the IEC, and other dignitaries, including even the father of Halifa Saleh, who is here today present. So it's an enlarged family, but the relationship between my father and OJ's father were special. They were special in many respects, at the family level and at the community level. So it is indeed on that background, OJ and myself emulated our fathers, the way they lived together. And up to his last day of passing away, he was telling his family to emulate the relationship that exists between me and him all these uh, beautiful ladies who stood here to say something about their father were born in my presence, the married to their wives were in my making, and I'm not only a friend but a member of the family. When I started my career in the Gambia government, in 1976, I worked for the Department of Hydrometeorology under the Ministry of Agriculture. Three years after that, in 1979, the Gambia government enacted a Water Act and created the Department of Water Resources. Omar Diallo prior to this was a parliamentary secretary under the Honorable Minister Kiri Kirijaman, who is here. But because of his commitment and devotion to development of this country, he was uh, appointed as the Minister of Water Resources after the act was enacted, and he became my minister. He was the Minister of Water Resources when I was the Department of Water Resources. I didn't know that I will ever share this kind of relationship with OJ. But the God who knows everything allowed this to happen, and our partnership in the development of the water resources and related sectors in the Gambia are proven immensely for the benefit of the nation. This includes, amongst others, I'm just highlighting some of the achievements because all these achievements cannot be measured. But I can tell you what we are talking about, what the situation is this time, in this country came about as a result of ODA endeavor in the service life in the Gambia and the other aspect, climate change that we are talking about today, energy, and he was the pioneer of all these environmental activities. This is just a few remarks I want to contribute. It is history being made here today, and we thank President Adam Barrow for allowing this thing to happen in recognition of the services of Omar Jallo. It has never happened before in the history of Gambia where a ceremony is held before the burial of an individual. But it is Omar Jallo who deserves all these praises and glory. So, on behalf of the Friends of OJ, I thank you immensely, uh, Honorable Adam Abaro. Thank you very much. Thank you. Um, Raji Ali Uh, at this stage, I also want to call on Honorable James Gomez to also make a statement. Mr. Saho, thank you once again for that stunning uh, history of the late Omar Ahmadinejad. di leen gërëm ci liñ sédo OJ ak wa Gambia suba anda ànd ak OJ na tuuti ci dara di len tase woon ñu jëgé fa mo mu dem bool dal yi cooperative man ma nekk di tic wasadum ak kanilay ak buyaam ñu bokk di def yëfi xalel ba loolu passé ñu ñu bokk ci mbiri football su ma yeboo sax wax ne pour diversify football OJ ci OJ la jógee parce que boobu Serekunda amuloon team Bakaw amuloon team team yi yëpp Banjul lañ nekkoon OJ ñëw def Kwami mu nekkoon team bu bari man maa ngi woon Augustinians xamante boobu nag soo gisee mu gën a dëgër amoon nañ mag ju baax bu ñu oyee Ousseynou Ndiaye mooma taaj taaj OJ ne dama boo ngeen ànd parce que da ngeen nuroo jikko te comme ngeen ne man may seen dama bëgg ngeen liggéey waaye boo jee may bi mu amoon jafe na ci doomu adama kan mooy OJ OJ mooy doomi Gambia bi nga xam ne dafa jël boppam jéemal ko Gambia ci lu nekk kan mooy OJ OJ mooy ki nga xam ne ràññeewul xajak seen du olof du manjaago du soose du pël du gumel du sëriñ OJ rek meloon noonu ci réew mi fii musula wax ne kii xeet nangam la soo bàyyi rek mu ne kii nit la ni ñun loolu yàlla ko mayoon oje ñun sax ñun kerkeen ñi dañ foogoon ne ci ñun la bokk ba bi ñoo xool suñu bisop bi sax ñëwoon na ci stadium loo xam ne dañ ko xewle oje daf cee bokk réew mi nag ñu mel noonu lay war a am ñun fii leen juddoo amul fenn gannaaw fii moo tax ñi fi juddoo yëpp wax a nekk benn suñu réew mu ngi mun a dem kanam mu fekkee ne juboo nañ jàppante dimbaleyante te OJ war nañu naka la wax nañ fi nag liggéeyam liggéey na external affairs terme boobu ñu ko ay parliament setti mu jógee fa mu dem ubbi water resources mu jógee fa mu dem agriculture loolu yëpp liggéey bu rafet la ci réew waaye ñun ñi bokkoon moom PPP am na njëriñ bu OJ parce que bi coup bi ñun ñëpp a daw man bokk sax bokk naa ci ñu daw ma dem Kenya OJ fu nekkoon moom kenn ñu ko jàpp ko tëj di ko jàpp ko dóor mu ne turu PPP du faax waaye li gënoon a ëngu maanaam ci OJ man li ma fekkee du ma ko fàtte ba ma dañ toog ba kaw di waxtaan ci suñu buub bi mu am waa ji romba boobu ñu nuyoo mu bàyyi ko ba mu dem mu ne suma bët bi kile ko toj mu ne ma te kii pol la ni man moo tax may wax ne Gambie dañu wax baalalante parce que su fekkee dañoo wax ne duñ baalalante du baax parce que waxtu time yi yaaya jàmme ku nekk def nga lu rafet ku nekk def nga lu bon te dim bi koo def ne pour xeetal nga def ko waaye def nga lu bon mu jàngal ñu foofu mu ne ñu suñu waxoon tey ne Yaya Jammeh dafaa ñëw ci dëkk bi te amul fu mu dëkk bi daa ko yóbbu suba kër ñun ñëpp dañ jàng loolu nag yàllaa ko may nit te loolu yaayaa ko may OJ OJ ci feebaram ñun ñu ko xam saa yoo ñëwee rek bugg naa wax ak ni ko mister leen naa oo sa tur bi moo tere sax soo ñëwee jox ko la ko mu ne suma waay la nga def waaye nag du OJ moo mënoon lii jabootam jax nañ leen a gërëm ñëpp doole ko ci seen yaay seen doom yi mbokk yi mag rakkaar ñëpp ñoom ñëpp dañ toppa OJ ba yàlla jël ko gërëm nañ di président nag suma sañoon duma ko duma ci delluwaat waaye xam naa li mu def parce que man fa woon Oje Kéré dafa meloon ni lopitaan loo xam ne mu ngi lopitaan mu ngi woon Kéré Kéré Oje docteur yi dañoo dugg di di ko seet te loolu président bii moo ñu ko defal ñu ngi laa gërëm di la sante di wax yàlla mu dolli la loolu dolli la wér dolli la xam-xam dolli la pexe bi nga xam ne mun ngaa mun a mun a yóbbu réew mi kanam jërëjëf président li ma koy teg rek mooy ñu ñaanalante Oje wan nañu yoon bi naka la. ñun ñi fi des di nekk kilifa nañ jéem a jaar foofu suñ fa jaaree jàmm rek mooy am ci réew fii maa ngi ñaan ngir sama OJ ñun ñëpp ñun ñi ko Alaaji Baaba di waxee ñun fii lañ juddoo fii lañ xam ca maam ya amuloon xaj seen ren waxula ak suñu réew mi fii ñu ngi ñaan ngir turi OJ koo xam ne doon am xalaat boo xam ne ñaaw na tuuti dellu si la fi jëm fenn ñun ñëpp ci réew mi lañ bokk réew mi ñëpp ko moom ñu yàlla ci dundi di ko nag yàlla ko yàlla yóbbu ci jëf thank you so much your excellency uh, in an event like this in a place like this uh, the most committee on behalf of the most chair humbly asks for the floor to have just a few minutes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangi His Excellency Alan Barrow ak cabinet bi lista si yëpp li tax nag ñu jox ma cër bi mooy fi ñu def bés bi nii tey kilifa jumaa bi ñu ngi nii toog te dafa rafet lool nag ñu feeñal ko euh, suñ président alaaji Moustapha Ka mu ngi nii toog alaaji Mamadou Senghor vice président alaaji Badou Faye ak ex nag goro Oje laa maa ngi sëy ak rakam for almost fifty years ma xam kéew gi xam ko xam njobootam nit ku baax moo génn àdduna réew mi ñoo ko ñàkk ak afrika yépp nit ku goxe woon ku bëggoon nit ku jullite woon koo xam ne lu mu am mu bokk koo nit ñi soo seetee ñi yóbbu bitim réew ñu jàng yi kenn xamul naka la toll ñu baree bare la xam naa ci dara parce que maa ngi dugg a foofu booy seventy nine ba léegi li imam doon wax sànq ne oh, lekk moo ay ndaje ñooy lekk ci papaam ko miinee papaam su wàccaan liggéey suy lekk moo kontaan dëgg The President of the Republic of the Gambia, Your Excellency the Vice President, Chief Justice Deputy Speaker of the National Assembly, Cabinet Ministers, Secretary General and Head of the Civil Service, family, friends, elders, and sympathizers present here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi I am humbled and honored to read the citation in respect of Omar Ahmad Jal to be awarded the insignia of Grand Commanders of the Order of the Republic of the Gambia, GCRG, honorary. Omar Ejalo, commonly known as Oje, was born in Gambia, St. in 1946, In Coast region. He attended St. Augustine's High School in Banjo. He has served several, has been trained several certificates with admirable experience. Upon completing high school in 1966, Oye became a cooperative inspector under the Ministry of Agriculture. He also worked Gambia Commercial and Development Bank as credit and loan officer. Odia later became the Progressive People's Party, PPP, National Assembly member for Serikunda is for several years. He later served in various capacities in the PPP government, including the Minister for Water Resources and Environment, and Deputy Minister, Parliamentary Secretary and the Ministry of Foreign Affairs. Mr. Jallo was the Minister for Agriculture from 1989 to 1994 under the DPP government before it was overthrown by the military regime in 1994. As a believer in democracy, OJ strongly opposed the coup d'etat in 1994 and subsequently became a survivor of the torturous acts of the military regime. He was subjected to continuous imprisonment and abuse from 1994. After a break from active politics from 1994 to 2001, taking up consultancy work at the international level, OJ decided that he could no longer be silent and allow the country to be plunged into unruly acts and destructive government institutions. He returned to politics, becoming the Secretary General and party leader of the PPP in 2001. Ojo was among the great leaders of the coalition in 2016 that led and guided Gambia in their decision to save the country from the clutches of dictatorship to democracy that brought President Adam to office after December 4th election 2016. Ojo was appointed as Minister of Agriculture by His Excellency Mr. Adam Barrow. Until his demise, he supported the country's development agenda, particularly transitional justice process and democracy. gisee ñun ñu mun a support projet ñoom ñoo ñu yaatal ñoom ñoo ñu support pour ñu mun a def loolu kon foog ñu gërëm leen si loolu waaye dinaa leen wax ne buñ jooy àdduna nii rek lay mujjee mbooleem ku fi nekk lii mooy mujjee waaye suy mujjee mu rafet bul dee si tumaranke nga dee si sa réew si sa famille ñu taxaw la lu war si yow ñu def ko ñëpp nañ ñaan loolu waaye oje am nañ yaakaar si moom dundaam yëpp liggéey social la doon def liggéey social nag mooy dimbal nit ñi mu nekkoon politicien mu nekkoon philanthropiste nit ku yaatu dimbal ñu bare bare bare man mi bokk naa si ñu nga xam ne taxaw na ma dimbali nekkoon politicien nekkoon na politicien bu dégg nekkoon politicien ku loyal ku gom PDP gomsarɗo kayro jawa ɓe moɗeni kono onkol oje tawi ñu amul dara luñ laa fee li rek lañ la fee looloo tax ma ne suma gars foo ñu décoré onkol oje daf ko disaaf daf ko liggéey nit ki nag lu nga liggéey rek loolu lañ laa fee waaye nag ñëpp ñu bàyyi suñu xel nit ki soo dundee da war am adresse sa jikko sa adresse la sa liggéey bu ngaa liggéey fii sa adresse la kon ñu bàyyi xel sa adresse loolu liggéey nag mooy nekk sa adresse kon ñu ngi gërëm ñëpp ñu taxawoo oncle Oje foog naa dëji Gambia yëpp dëji Afrique yëpp kon ñun suñu wax du fi bari lii rek lañ pour wax di gërëm nag frères bi famille bi ak waa Gambia yëpp ak Portugal famille bi ñu xam ne tey ñàkk ko ku rëy ñàkk nañ duñ ko mus in the history of politics in this country jërë ngeen jëf I, Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, and Grand Master of the National Order. Hereby confer on Honorable Umar Amadou Diallo the insignia of the Grand Commander of the Order of the Republic of the Gambia, TCRG posthumous. Thank you, Your Excellency. Gambia mu ngi wax ne lu baax jàpp leen lu baax ñu bàyyi lu baax si gannaaw ñu mën a boole fii ndax ñu bari ñu boole tale si gannaaw wax moo ma tuddee mu ngi jaww ci kuwaale son bi waaw saa yow tam moo tuddee Gamba Your Excellency, jërëjëf. Uh, you may take your seats. Um, On behalf of His Excellency, I ask permission uh, to take excuse for him to uh, to leave uh, and allow the event to continue with the flow uh, inside the mosque. And I hand over to Manset. Thank you so gisee nii ah, gis ngeen ko ah, bu baax a baax a baax nekk na yéen a ngi seetaan ah, Gambia Talents TV comme ni ngeen ko nekk gisee bi président Adama Barrow gis ngeen mu ngi génn ni pour lan dugal si oto bi kon ni nga ko gisee nii comme ni ngeen ko gisee nii hmm, gis ngeen ñu ko lifin le fi na ni fu mu wara dem fu fam ne fa lañ ko di defee fi da pour lan jébal ko boromam si kanam tuuti hanin ba dungo ko mi nga fa abega maintenance tiyo jibe ka to ngi na bi re e honorable oje jalo ka min jode mi ya ko ko nga ko mi nga nga nga nga ko Ah, mo abaje kan ko mi abaje kan je kan nyamin tan go ya nyamin te mo ah, ga ko be dunga ala moto kono ah, ko min aje nyamin ya tan tv ga ya dunda la moto kono san san kan ñu jege wante pour moto hmm. ana iphone yang ko waaw moo kii ko gis ne xëy excellence yi président aramba moom ngi dem ni waa si biir ah, lenk si biir jumaa bi lañ ko di dem ah, firdaaw gannaaw bu ko firdaaw ba pare ah, dinañ ko daldi jébal dara dina leen war ne tamit firdaaw bi nu mu fay demee laata ñuy du ko jébal borom kon dañuy delluwaat si biir jumaa bi wan kilifa dina kilifa ala dina waxtaan ñeneen tamit si si kilifa diine ah, kilifa ah, ada comme ni nga ko daal di gisee nii yéen a gisee daan Gambian Talents TV comme bi ngeen famille yi xale di nañ tee fii di sa naxare ada gis na fi ñu sabara ñoom ne ñu war a amee wàllum wér yaram kon nu ko euh, gisee ni ba tey Gambian Talents TV ngeen nekk di euh, seetaan euh, jamono yi gis ngeen ko fi na ni comme nu am am xajo seen dina dina a dadi dina kii moom docteur Samata di ministre nga ne moo amee yaram bi moom tamit teew na fi moom tamit moom tamit nekk teew na fi di ndax dara comme nu ko fee ñu ñu ngi fi di si ay ministre ay borom ma ay kilifa di kilifa aada ñoo xam ne a fi teew tey ku leen ah, rafet liggéey na ko si réew mi ah, ah, bitim réew kon saa su nekk neen liggéey ne am na lu solo bu baax a baax kenn am na am na solo bu baax kon du nag dara dugg si biir jumaa bi ñu war na loo ci lu ñu nekk la ñu ngi koy jëf ci ondaam nag la yàlla dogal ab julit dafa war a nangu dogalu yàlla su nangoo dogalu yàlla dafay daal di noppaliku te dogalu yàlla nag ñaar rekk la bu neex ak bu naqari bii nag tey ci la bokk moo tax nangul nañ ko yàlla gannaaw boo xamee ne El Hadj Omar Diallo tey jii ñi mu liggéey ci réew mi ñoom ñëpp serne ko loolu ñi mu bokkaloon di jëflante ci biir diine ji jile kenn ku nekk xam lu ko dooree Gambia ba Sénégal képp ku fi nekk kilifa diine teew nga fii wala sa ndaw teew na fi loolu nag moo ñu wan ni jëf ci diine ji ngi toog fii ci néegu yàlla ak OJ ci public bi force république bi nguur sa daawda eh, ba jawara mu doon magam bu bax nak lañ ci ci jaamam itam ñu ci jotaay bi legi nak, alaaji babakar mbay ñu ci jotaay bi damay dem ci alaaji babali mu garal kaddu su ko defee nag bismillah bu ko wax mu jeex. waaye ñu ngi wax ci kàddu. waaye ñu ngi wax ci kàddu. ci làmmeñu ci làmmeñu. ñu Cerno. Ala Alaaji Cerno Diallo. Cerno mu aaju Diallo. mu aaju Diallo. ñu ngi wax ci làmmee ñu ngi wax ci làmmeñam. Eh, mu ñu sant mu ñu sant ne. mi ngi ñaan mbolo mi mi ngi ñaan mbolo mi ñaan képp ku fi ne ñaan képp ku fi ne ñu bokk jéggal Omar Diallo ñu bokk jéggal Omar Diallo ñu ko akha ndax mat yalla rek la yàlla rek la doomu adama matul doomu aadama matul xëy te xeyna mom du ko xam moom du ko xam Omar du ko xam xëy Omar du ko xam waaye xëy na kum fi jotel waaye xëy kum fi mu amel akha omar amel amel bàkkaar xeyna ci làmmeñu pa ak njobot ci làmmeñu pa ak ñu ngi ngay ñaan yàlla njéggal ñu ngay ñaan yàlla njéggal waaye ñu ngi ñaan réew mi yëpp waaye ñu ngay ñaan réew mi yëpp itam jéggal oo ñu jéggal Omar ñu ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla yërmande yërmande yàlla loolu rek fi am loolu rek fi am solo li ci des li ci des daal mooy ma digal suma bopp mooy moom nee na moom mu digal boppam ma digal suma bopp. nee na mu ngi digal boppam. ma digal Seydi. moo fi yónnee enveloppe bii. moo fi yónnee enveloppe bi bu weex bii. bu weex bii. mu ne mu def ko. mu ne mu def ko. ci eh, jaaleem. ci jaaleem. ñu jox ko njabooti. ñu jox ko njabooti oje. bii. bii. Baye Doudou Diallo. Baye Doudou Diallo. moo oje bokk benn baay. moo oje ñoo bokk benn baay. moo yónnee. moo yónnee bii si moom ma teg ko ci loxo njaboot ci loxo njabootu Oje ñu dimbalante ko ñu dimbalante ko ci mbiri dëj ci mbiru dëj bi lii ne suma poos mu ne lii nag si poosam juróomi junne la juróom jaay Oje lañu ndax ñëpp xam nañ ndax ñëpp xam nañ ni Thierno Mouhadjou Diallo Thierno Mouhadjou Diallo moom lañ tuddee Paa Male toog moom lañ tuddee Paa Male toog eh, biir kaama la toogoon biir kaama la toogoon wala yàlla def jàmmam yàlla def jàmmam wala yàlla def léppam wala yàlla def léppam su loolu passé su loolu passé nag ñu ngi yëgal mbooloo mi ne ñu ngi yëgal mbooloo mi ne OJD ba muy dunda mu ne OJD ba muy dunda ku ko miin xam nga loolu ci moom xam nga loolu ci moom ndax baayam ma ñu jàngal ndax baayam ma ñu jàngal baayam mooy suñ sëriñ baayam mooy suñu sëriñ baayam mooy suñ baay mooy suñu baay baayam moo ñu yar baayam moo ñu yar moom lañ am teg na njabootam teg na njabootam ak lenn ci ay rakam ak lenn su ma génnee su ma génnee àdduna lépp su ma lépp bàyyee naa ko baabal naa ko baabal na nga ko waaye suñ la joxee lépp waaye buñ la joxee lépp nag nga jël nga jël lépp nga jël lépp tuune nga tuune nga te buñ ko loxo maam seet ñu fi daawoo ko Alaaji Omar léegi ma dem si honorable chief justice moom it mu ko yàlla xare jaale ci suñu tur. ñu ngay jaale nag suñu tur. suñu tur yi suñu rakk yu ñu àndal. suñu rakk yu ñu àndal. alaaji maam Seyd. alaaji maam Seyd yaay Diallo maam Seyd Diallo. Cerno Junaydu. Cerno Junaydu. Cerno Abdourahman. Cerno Abdourahman. ak mboolem njaboot ak taalibe Cheikh Alaaji Bukari Seydi. ak mbooloom uh, taalibe Cheikh Ababacar. ak njabootam ak njabootam. fi ñu toll nii jotay bu melni jotay bu melni mu nga am ban sang mu nga am ban sang ñu ya, ko jangal alquran ñu ko jangal alquran ñu ko fidaaw ñu ngi koy fidaaw yal yalla yàlla nangu ñaan yalla yàlla na yàlla nangu ñaan yi yalla na yàlla nangu sarax yi na yalla nangu sarax yi jotaay bi niñ ko waxe guduna jotay bi niñ ko waxe guduna de aji jitu aji jitu gi lim gëna soxla lim gëna soxla ci wali ñim bayyi gënaaw ci wali ñu bayyi gënaaw moy ñaan moy ñaan ak sarax lool rek lañ leen mëna dimbalé lool rek lañ leen mëna dimbalé lool lu fekki te lu fekki jiital ñoom luñ jiital ñoom ak a fekki ak di fekki ak yërmande yàlla ak yërmande yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala subhaanahu wa taala yàlla na yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm ah, OJ e comme niñ ko xamee OJ e daal comme niñ ko xamee suñu mag la suñu yàlla def yàlla def ñu bokk school ñu bokk school Saint ñoo ñu jiitu ñoo ñu jiitu woon nag ak ñoom Ousseynou Dabo ak ñoom El ñu bokk liggéey itam yàlla def ñu bokk liggéey itam di Jawara di su jamono Sa Dawda Jawara am na ñeneen ñu fi nekk am ñu fi nekk ñeneen MC MC Thiam nga nële El Hadj MC El Hadj MC Thiam nga nële El Hadj Kiti Jabang eh, El Hadj Sabali ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu fi ñu ngi fi nga xam ñu ñun ñoo ñoo ñoom ñoo

mooy ne OJ. mooy El Hadj Omar Diallo OJ. ci ci ci laay fam yëpp. yooyu addunaam yëpp. dafa taxaw taxaw. dafa taxaw taxaw boo xam ne. tànki tànki tànki digga. tànki dëgga. tànki tànki jaama. tànki jaama. ak tànki yokk réew mi ak tànki yokk réew mi. ci loolu nag nekkal na jamaano bi. ci loolu nag nekkal na jamono bi. modèle. modèle. doomi aadama bi bi. sa bopp rek. pour sa bopp rek de. ak sa njaboot ak sa njaboot. nga war a liggéeyal nga war a liggéeyal. nga bàyyi xel ci ci ci ci. askan bi nga bàyyi xel itam si askan wi. ak réew mi ak réew mi. nga taxawal leen nga taxawal leen. loo xam ne dafa isi jàmm. loo xam ne dafa indi jàmm. ci kaw digga ci kaw dëgga. ak diina lislaam ak diina lislaam. nga taxaw ci bu baax nga taxaw ci bu baax. loolu ñu ñëpp seede nañ ko loolu ñun ñëpp seede nañ ko. ñu ngi ko gën a ñaanal. ñu ko ñu koy gën a ñaanal. na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm. na ko yàlla xaare yàlla na ko yàlla xaare àjjana. njaboot bi bàyyi ginnaaw njaboot bi nga xam ne moom la bàyyi ginnaaw yal na yàlla aar leen yàlla aar yàlla yokk leen barke yàlla yokk leen barke li nga xam ne loolu la doon xeexal li nga xam ne loolu la doon xeexal muy juboo muy juboo ak digga ak dëgga ak dem kanam ak dem kanam ci réew mi ci réew mi yal na ko yàlla saxal yàlla na ko yàlla saxal jaay nabil Mustafa barke nu yàlla Muhammad allahumma salli ala sayyidina mu naam émam ne rakaam mu teewal fi askan wi mi ngi noonu ci Ceerno Cheikh Diallo maam si Sénégal ak Gambie baax na jërëjëf okay for the family okay I'll tell you waaw imaam ba doy na amin jërëjëf amin jërëjëf jërëjëf ku baax kii jërëjëf. Eh, Alaaji Alaaji Assane jërëjëf. Alaaji Assane maam seen yaay nee na jërëjëf. seen bumba ñu ko daanee parce que waxtu ma ko dégloo ma jàng si wees. ndax waxtu ko dégloo rek ma si jàng wees. kon ñu ngi gërëm waa jumaa ji. kon ñu ngi gërëm waa jumaa ji. gannaaw loolu. gannaaw loolu. maa ngi nuyu suma kilifa aada yi fi toog. nee na mi ngi nuyu kilifa aada yi fi toog. commencé ko si ñoom Ousseynou Dabo. mu ngi commencé ko si honorable Alaaji Ousseynou Dabo mu baax mi. ak Khalifa Sall mi. ak Alaaji Khalifa Sall mu baax mi. ak yeneen cabinet ministre yi fi. ak yeneen cabinet ministre yi fi nekk yëpp. ak député yi fi nekk. ak député yi fi nekk yëpp. ak politicien yi fi nekk yëpp. ak politicien yi fi nekk yëpp. maa ngi leen di nuyu. nee na nag passé foofu ci lim. nee na mu ngi leen di nuyu waaye mënut a passé nag loolu mënut a passé foofu ci lim de. li ñu fi tax a daje tey nag. li ñu fi tax a daje tey. mooy Alaaji Omar Diallo. mooy Alaaji Omar Diallo. li nit wax si moom li nit wax si moom dégg nañ ko léegi bi nekkee ci biti dégg nañ ko léegi bi ñu nekkee ci biti mbaaxam mbaaxam jubam jubam ak lewetam ak lewetam ak oyofaayam loolu ñun dañ ko dund ak moom de maa Khalifa Sall moom Khalifa Sall wi ak moom ak moom bokkoon nañ ci kaso bi ñun ñett ñun ñett tëj nañ ñu fa tëj nañ ñu fa xam naa nañ fa dëkkeewoon te nee na xam nañ fa dëkkeewoon nit ku baax la nee na ku baax la nit ku lewet la ku lewet la nit ku jullite la ku jullite la te ku gëm li muy def ku gëm li muy def la itam nit nag booy def dara gëm ko nit nag booy def dara gëm ko séntu ci lu ne séntu ci lu ne jaral la lu ne mu jaral la lu ne nit ku baax du passé foofu nit ku baax du passé foofu de bon nag bon nag ci turi nguuri Gambia ci turi nguuri Gambia ak Gambians yëpp ak Gambians yëpp ak turi Adama Barrow njabootam ak Adama Barrow njaal si njob bokki Omar Jallow ak xaritam ñu ngi yónnee njaal si bokk euh, euh, Omar Jallow yi ak xaritam yi di wane suñu métit di wane suñu métit Gambia ñàkk na Gambia ñàkk na Afrika ñàkk na Afrika ñàkk na aduna bi ñàkk na aduna bi ñàkk ndax nit ku baax fu mu dem rek fu mu dem am na lu wàññeeku am na lu wàññeeku balaa maa gaaral suma kàddu na nag dafa am lu ma gisoon ci OJ. loolu dafa am lu ma gisoon ma oo ko. benn bés ma ne ko yow foo jàngee. ko yow foo jàngee koo tudd. mboolem koo la wax lu kii bokk ak lu kii bokk ak kii. OJ dina la wax dana faram fàcce am bokk. dana faram fàcce am bokk koo tudd rek dina wax lu bokk rek dina wax lu ma ne ko yow foo jàngee xam-xam bi xam-xam bi. nga lu mu xam nga lu bokk mu ne ma ci kilifa yi laa ko jàngee man dama jege woon sama baay. dama jege woon sama baay. kon nag li fi am solo wala li ci am solo baabali am na lu mu fi wax baabali am na lu mu fi wax mu ne mu ne nan nit ñi di julli waxtu nan nit ñi di julli waxtu juróom la ma cay teg nee la ma cay teg mooy mooy nan nit ñi am yërmande nit ñi am yërmande jamono bu naqaree jamono bu naqaree ñi tane ñi tane dañ war a dimbale néew gi doole dañ war a dimbale néew gi doole yi waaye nga am dëkkandoor waaye nga am dëkkandoor amul dépasse amul dépasse saaku maalo amul saaku maalo soo ñëwee boo sa buntu kër kenn du la mun a nuyu soo eewoo boo eewoo sa moto liggéey sa moto liggéey xamuloo sa dëkkandoor yi ñu nekkee ngay war a tiitar yi àddina ngay war di ñàkk reer ñàkk ay te am ko dimbale leen am ko dimbale i loolu bokkul loo julli julli waxtu juróom soo amul yërmande amul yërmande te nga jullit nga nekk jullit te man ko te man ko am ko am ko sa diine def sa diine dafa des de nañ gën dimbalante nañ leen jéem a dimbalante jàppalante jàppalante loo fi denc denc lépp loo fi denc denc nga yóbbu àll nga defal nit ñi mbaa nga loo defal nit ñi mbaax bi nga defal nit ñi mbaax li nga defal nit ñi moo laa yóbbu àll moo la yóbbu àll Omar nag loolu la doon dundee Omar loolu la doon dundee lim am daf ko doon séddoo lim am daf ko doon séddoo nit ñi di ko jëflante di ko jëflante nit ñi loolu mooy li nga xam ne moo koy fekk tey loolu mooy li nga xam ne moo koy fekk tey ci nit ñi jàngee bu nit ñi jàngee gërëm nañ mbooloo mi gërëm nañ mbooloo mi gërëm nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp njabootam jërëjëf njabootam jërëjëf doo bëgg ñu wax ko. lu bari. lu bari. da jëflante ak ñoom. da ngay ci suma loxo. di ko jaarale ci loxoom. ak jumaa yal na ko yàlla fay. yal na ko yàlla ñi bari nañ. duñ mun a wax de. Eh, ñu ne waa ah? maas bul ma kon ngir yàlla bul ma confuse léegi. léegi. alaaji MC Thiam. alaaji MC Thiam. alaaji Ousseynou Diabo. alaaji Ousseynou ñii dañ am cër ci bés bi. dañoo am cër ci bés bi. alaaji Ousseynou Diabo classmate am la woon. alaaji one ba form five. form one ba five. waaw te daf ko daan seeti. daf ko daan seeti. daf ko seeti au lieu. ba di ko balaa jumaa ji ñoo jox seen kàddu nag. wala jumaa ñuy jox seen kàddu nag. alaaji ba ji. jumaa ji seen kàddu. jël seen kàddu. ne. ne alaaji badu badu lañ ko jox waaye da ngaa dem ci MC. waaye dama MC. su nga dem ci Ousseynou. ba pare nga dem ci badu. ba pare parce que foofu la ñoo tëjee nag jotaay. foofu la ñoo tëjee euh, kii ni euh, excellence. Euh, excellence Basirou Sène. Sénégalais ambassadeur Sénégalais ambassadeur bi. mu ci jotaay bi mu ci jotaay bi. dafaa dem di ko seeti. dafay dem di ko seeti. di ko ñaanal ko ñaanal. moom ci jumaa ji la bo moom ci jumaa ji la bokk. di dëkkandooru jumaa ji la. di dëkkandooru jumaa ji la. Ba Omar Fall. Ba Omar mu ci jotaay bi mu ci jotaay bi. ànda Elimaana. ànda ak seen naay bi yëpp seen naay yëpp ñoom ñëpp a ci jotaay bi ñoom ñëpp ci jotaay bi dama ci alaaji MC si ci ñoo doon indi footballers yi. ñoo doon indi footballers yi. compétition nekk benn. compétition bi nekk benn. ñi ko xam fii bariwul. ñi ko xam fii bariwul de. jamono boobu laa xam. boobu nag jamono yooyu la xam El Hadj Oudé Diallo boobu Kéba Diallo. boobu Kéba Diallo rakk la ci ñoom. rakk la ci ñoom. xam na ci dara. xam na ci dara. Oudé. Oudé. bon leader la. leader la dafa dafa juddu. dafa juddu. yàlla def ko ci askan yi ñuy jiite. yàlla def ko ci askan yi ñuy jiite. ba muy xaleel. ba muy xaleel. mu ngi jéem. mu ngi jéem. bu baax a baax bu baax a baax a baax. suma first election. mu aw ma kuma voté ku taxaw. aw ma kuma ku ak man. yow xam nga sax Keba. mu ne Keba Serekunda. OJ moo amee Serekunda. E ñoom Danso. ñoom Bakaw ñoom Ibou Bakaw. Birkama. ak Birkama. ñooñu ñooñu. loolu xëjutoon foofu. loolu xajutoon foofu. yow xam nga gàttal foofu. nee na mu gàttal. li may wax ci OJ e bari na. li nañu ñu jàng ci loolu. ñu jàng ci loolu. bu ñu em ci jàng bi. bu ñu ci jàng bi. nañ jéem ñu jëfoo. nañ jéem lu mu jëfoon. wax lu baax. wax lu baax. ñëpp xam nañ ko. ñëpp xam na ko. ñëpp mun nañ ñëpp mën nañ def lu baax. def lu baax moom la war a looloo jafe. nit nit ki. li nga uyoo. li war na koo nuyoo nuroo. war nga koo nuroo. li nga war nga koo nuroo. Paul ñu ñu ne Paul lu niiwi. lu niiwi na lu metti. wane na lu lu niiwi. lu niiwi na lu metti. yal na ko yàlla yërëm. yal na ko yàlla yërëm. xare ko aljanna. yal na wax yi leen ñëw a file. wax yu wax bi yëpp. wax yu baax. yu baax mu nekk ci yow. nekkul ci yow. nekkul ci yow. yal yàlla jàpp wax yu baax. mu tasaare ko mbooloo. tasaare ko mbooloo. allahumma salli ala sayyidina Muhammad. imam ratib imam cerno ka imam tena kafi fi sahel bu fi mu la nuyu ndela jaale fa jallo ani jallo kunda be konto na sanga mu ngel nuyu pa jallo akwa ken jallo kunda yep awa job ana la famille o gande be konto na sanga mu ngel nuyu awa job aki famille am yep ndela jaale bi mu lu la tembe oje sede ala lu menna mu ne tey bés la bi nga xam ne ne OJ defal seedeyaaroon nag a beete keenoo lant la moo be foonoo la ñu waati kundin tun kono yaa bang bi lu ñu xam ci OJ bu ñu ko ni OJ benta school le St Augustine man mii 1960 daje naa OJ St Augustine te la ñoo bokkoon benn classe san sotota naɓe ɓe sirre table kiling la kan am na at bi ne ñoo bokkoon benn table eh, no sanje kiling me yalo kon sitaño kon bes kiling to o ya kendi na kol sotaño kam baake at boobu bi nga xam ne maa bokk eh, la ba ñu jeexale ci ndanga bi benn doo ko lam faye eh. ku ne maa

mu ne du ko ñemee wax ne awul gannaaw amatuma kenn amatuma kenn ama moo ko na eh, amatuma kenn koo xam ne danaa ko wax su ma awul oje ay men do ko wala banko e oje bi mu liggéey ne woon Gambia bele ya Gambia dafa ko xam oje 1995 tan naate ɓeetarta detention de talaj mc cam e seydou diallo ni moƴama ɓeetarta bakao mil bakao barak onde detention jeeɗo mune 1995 momo ak oje alhaji mc cam ak moroy fep nekatanki caabi ganaw ki bakao mellata oje kan waɗi oji sanction kono wine on ci caabi ci caabi ganaw li topp ci kaw oje min mokoten noo so fekkani kelanda ay mais mutano pipi fila koor li mu téewoon ci bibi bi dina ko bay de mu ne toro toro boo xam ne oje am na ko pour ne wax loolu moo tax mu wàcciyu mu taxaw ne wax lépp loo xalaat lépp loo xam ne xalaat ci jëm eh, jëm réew mi ci kanam oje lotala oje taxumati oje ma juube ko oje hol jisu dara konne mo kare man den particulier man ak diw bogu ñu benn parti naan benta wato wato waxtu ngeen daje caméra kafu ko da nga foog ne ak den particulier ya moom yena bokk benn parti caméra ko daga fofne ajalan bakilin fakilin da kadai akbai oje bu kada kuntu mola oje bi kuma fa ay fen fen koma kam kuma la garawane la ko nay fen fen foy koma lam mu wax ni lota ba fu lay banko kanu nit muy ne ku buga de wax bo fu lay kanu nit koo xam ne defar defar diggante ñaar nit wo felema yàlla kafo ko gambe nafta meme na bool ka gambe nafti mura oje ci la boka oje na meye banko bondi oje ñi jëlee ci réew mi me meye banko bondi lu jëlee mi oje tataw ñaatole oje taw na ci kanam kooku a yàlla kata koo def na jofana du yam fañim banko kanata réew mi bi mu dem banko kanarin koola abaɗo kukan pour bankoñen ay tama silola donc ta men kata silatin lende amma la fala banko e boy mumen ke gambia fota dinkendol labi gambia fota molla me yalon kaba ko a faamu karantale ti gambia dingliye momu papamu darala ci rewmi a fan mom bopam momu ci daara la ci réew mi ado alo karanta ya men yalon ka fo boole gambian ko le daara bi nga xam ne moom la nekkoon ci gambia fen fe yalon ka fo politicien ti képp koo xam ne politicien la fen fe yalon fa ko manque politicien te képp koo xam ne doon politicien wa ñem banko la ko ye hene waaye soxla na réew mi koto ñanta ka karamba ah war nga jàngal loolu tubaabol quand même fo lu tubaab bi wax o jeete kala footnote gambia la history to mu ne o jee mu ne la footnote ci history gambia gambia boo jee kala caprati gambe la history do ne history be kala volumes history volumes history men soto alama alama fanal la allah ya alama sono ya allah ya allah ya i lost a small a small uncle ya yalon ka ko na classmate mo mo ko class kuobuka kala suwo kono amman kilinga ma be joni dara hoji ken oye oye o mo ay namuso mo ka banda ay ay ta duniya be la fanan ka fakko bari ne la baftu mi sada bole tegina jaraba e dabaram ne suma jaraba na woni na an na yobbe kusel da o dabaram suma jaraba wala ni nga pajal la ñol konton sa la sin fan fanan konton sa kon bu ma nuye pajal lo ci dej ma nuyu suma mo pat ma jaale suma ko wala ajama ndur fanan konton sa la mu jaale ajama ndur fanan ko wassalam lool moy kaddu nga ko am kóllëre nga na ku def ku yàgg nag ak Oje Diallo moom tamit bés bu nekk ñu ngi ci Oje suy tukki bàyyi fa lu takku pour njabootam gi loolu nag fokk nag ñu feeñal ko Oje nag ku baax a baax a baax la luñ fi dégg tey mënuñ koo paase. nee na alaaji duudu waxoon na ci biti mu ne waaye nag dafay ñaanaat yeneen kàddu rek ñu may ko ko honorable ba buggoon na wax fële waaye chief of staff na ñu may ko bu duggusee bu du let waxee ba pare bala ñoo jox alaaji Badou Faye moom muy wax ci turu jumaa ji bu xam ne président bi wax mu wax su ko defee mu tëj jataay bi bismillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muslim allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad rasulullah sallallahu taala wa sallam mbooloo mi nee kilifa Cerno Ba Diallo di ko sant nag si taxawaayam ba dëj bi xewee ba tey ñëpp ngi ànd ak seen sago di ko doxal niñ ko war a doxalee lu si mujjee démba bàcce nañ ko fa kamil bu am solo ñaan fa ay ñaan yu am solo te yaakaar na lii nag moo war a continuer mais soo gisee nii mu war a jël kàddu feeñal nañ fële si biti ne moo doon war a yóbbu l'hôpital bi na ko indi si cabinet am no si honorable adama baro nañ si feeñal tam famille docteur omar dia boubacar dia taxawaay bi nga xam ne la l'hôpital bari am si kër gi foofu mu ne taxawaay boobu lañ fa am. ba audio tëddee ba tey. ñu ngi fa asayid noos boo xam ne. ñu fa asayid noos boo xam ne. moom moo noosi lopitaan bi ñooy def shift. moom noosu hôpital bi ñooy def shift. di toppatoo audio. di toppatoo audio. di ko jox garab. di ko jox garab. di ko defal lu ko war. di ko defal lu ko war. audio. def na at ci feebaram bi bala moo gën a at waaye la njëkk sa oje wala ni nga xam oje ñëpp a ngi ni toog fii te ñooñu xam nañ oje bu baax a baax jarul nag di di bamtuwaat mooy mu ngay wax ne si wàllu ñooñu yàlla def wërsëg yu ñëw fii alaaji maam seen njaay ko la si kër gi a ak am rafet na waaye oje jaar jaaram jëlee ko Serekunda ba ñëw ba pipeline wax ji bu ko jëlee foofu kon duñ fi jógee nee na muy wax si baatu ñooñu ñoom Pa Aliou Ndiaye ñoom Baye Sa Mbaye Sakho ñoom Serif Jammeh nga ne la toog Khalifa Sall mi nga gis ni toog nii suñ bàyyee daan toog audio loolu la sàmm ba léegi ah, ah, ah, nee na bu jógee tabaski ak lu muy foor yëpp balaa egg këram. balaa àgg këram. boo ñëwee suñu kër laa jaar. suñu kër lay jaar. ak jarbaatam yi. siyaare foofu siyaare foofu. jox doomam yi ñu reyal ko xaram. jox doomam yi ñu reyal ko xaram yi. suñu bàyyi noonu lañ daan def. ci loolu la def bu nekk ba léegi. moo tax bu ñu wax OJ fii. nañ jox cër biir waa Serekunda. ngeen baal ma. allahumma salli ala sayyidina wa sallim. xam na ne waa fële la. waaye Serekunda ak fii yëpp benn la rek. benn jumaa ji la rek imam Bachir a ngi nii toog mun naa seede loolu alaaji duru ba maam seed na jërëjëf léegi damay dem si honorable Khalifa Sall mu am si cër lool ma dem fa ñoo yore ñaan gi ñoo yore ñaan gi ak waar nit ñi ak waar doomu aadama yi ba si dëkkandoor yi la ba si dëkkandoor yi la pour seede pour seede si ñi nga xam ne ñoo war a toog fii ba si ñi nga xam ne ñoo war a toog fii ñaanal ko ñaani xaas ñaanal ko ñaani xaas mooy mbokk yi mooy mbokk yi ñun ci lu dugg wande ñun nag ci lu dugga moo waral du suñu bés moo waral du suñu bés ndax dañ ñu war a waar ndax dañ ñoo war dañ nekk ay mbokk. danañ nekk ay mbokk. nekk ay dëkkandoor ay dëkkandoor. yoo xam ne dañ yaroo yoo xam ne dañoo yaroo ñu bëri danañ foog ne politique moo ñu. ñu bëri danañ foog ne nag politique moo ñu boole. waaye déedéet politique boole wu ñu de. noonu la ko duudu leer. noonu la ko alaaji duudu leet saaxoo leeralee. ne suñu waajur yi. ne suñu waajur yi. ko wax ci benn jotaay. noonu mu ngi koy wax si benn jotaay. boo xam ne kenn suñu kilifa yi. xam ne kenn suñu kilifa yi. moom lañ doon feddaliwaat moom lañ doon feddaliwaat. dundaam ci kaw dundaam ci kaw suuf. ma ne kilifa mu ne kilifa yi. dañ gisoon ne gisoon ne. xel bu wéet. xel bu wéet. pencum seytaane. pencum seytaane la. moo tax seen njaboot moo tax seen njaboot gi ñu leen daan dugal ci daara ñu leen daan dugal ci daara yi ñuy jàng ba ñu nekkee as tuut ba ñu nekkee as pour bu am jot pour bu ñu am jot ñun foofu la foofu la jaar moo tax lu ñu mën a doon moo tax lépp lu ñu mën a doon si àdduna bi buñ demee ba gisante buñ demee ba gisante rek foog mu am lu rëcc ci foog mu am rëcc si xol mu am lu ci feesaat mu am lu ci feesaat mooy waajur yi mooy waajur yi ñu def si ñun li def si ñun di bàyyi wante xel di bàyyi wante xel di bëggante di enewante jàmm bañ a nekk lool bañ nekk ay wuja bañ a nekk ay wuja nekk ay nawle. OJ nawle lañu woon di jéem a xëccoo kan moo mën a defar àddina di jéem a xëccoo kan moo mën a defar àdduna. kan moo mën a defar itam njaboot a defar njaboot gi. defar dëkkandoor defandoor dëkkandoor itam. kon nag nawle yooyu. façon gu nawle yooyu. moom la Gambia soxla moom la Gambia soxla. soxlawul ay xëccoo. bu ko soxlawul ay xëccoo ak ay noonu. nañ nekk ay nawle nañ nekk ku nekk di def lu baax ku nekk di roy si loola bu ñu defee loolu bés dafaa nekk bés yi ñëpp day nekk bés yi ñëpp du nekk suñu bés bés bés yi ñëpp la nañ si a jàngee nañ ko lañ a dundee su ko suufu Gambia bu ku nekk jëriñoo ko asalaamaaleykum ya amin amin yaa rabbi jërëjëf Sall ministre yu bari dem na fa ak suma ay twenty mook ay twentyem di wut scholarship di wut scholarship waaye bu ma demee si OJ waaye nee bi mu demee si OJ mu ne ma mu ne ko ko gis suñu xaritoo foofu la dooree mu ne fanweeri lu topp mu doomam bu góor ki mu am mu moom la ko tuddee mu ne na California ñaari yoon ak ki su na nga def mu na nga def loolu rek doy waxuma la nag mu réyal la mu waxuma la nag mu réyal la nag tegal la tegal ci Oje Oje Diallo dañ daan xuloo dañ daan xuloo bu ñëwee politique bu ñëwee politique waaye waaye su ñëwee suma carrière bu ñëwee sama carrière musuma def lu nga xam ne yëgut ko maa def lu mu yëgut dañ muñ ma koolee pour appoint ma ministre ba muñ ma koolee pour appoint ma ministre moom ñu njëkk a ñu ma njëkk a waxal. ñu ma njëkk a waxal. ci moom la ci moom la. ma ko man. mu ne ko man. liggéey bu bari bu bari la bu am doole. liggéey bu bari la bu am doole. te man te man. dama bëgg a advice si yow. dama bëgg advice si yow. mu ne ma yow yàgg nga si àll bi. mu ne yow yàgg nga si àll bi. ñëpp si nga dimbale sa dëkk. nit pour nit na pour nga dimbale sa dëkk. doo ko mos di rëccu. doo ko mos a rëccu. tey nag tey nag. dama bëgg a wax Gambia yëpp. li ma bëgg wax Gambia yëpp mooy. si ñu yar ba ma ñu nga xam ne ñoo ko yar ba mu agsi fi mu agsi nii tey si la bokka alaaji ojo si la bokka encourage si la bokka encourage si la bokk ah mbasu mbay si la bokk mbasu mbay ci la bokk yal na ko yàlla yërëm protocole moodu boobu si la bokka protocole boobu yal moom itam uh, ci la bokka ah, kii ne ah, Harry Lloyd la bokka Harry Evans si la bokka ñii ñoo ma xamoon ñoo ma xamoon su ma nekkul dara su ma nekkul dara aw ma dara aw ma dara seen famille du ma ko mos seen famille du ma ko mos a fàtte jërëjëf boo fa lañ daan dajee ñuy dem na benn benn mu nekk si mujjee mooy son papa Alaaji Dut Saaxo bi mu jógee moom ak waa Saaxo Kunda ñoo léegi suñu baay yi sa papa la ñuy jiitaloon léegi comme gannaaw ku fi des dem na léegi im yow ala Aliou yaay suñu njiit noonu lañ ko téye jabaram papi jabaram mook yaay ñoo bokk benn baay mu ne moo tax kuy ñàkk tey moom ñu gën a ñàkk moom ci la bokk ñu ne xanaa ñaanal ko rek lu wax ni njaboot ki itam ne waaw moo koy ah, ba tey yéen a ngi seetaan ah, Gambian Talents TV comme ni nga ko gisee ah, gannaaw bu ñu jógee si bii jumaa bi gannaaw moom ne buñ ko fida web ba pare léegi nag ñu ngi ko ñu si suñ ko jullee ba pare wa dadi ko jéeg ba boromam Ah, fere leen ko dam jibara ba muy a ah, Serekunda gannaaw ah, bu ñu waxee ne moom waa Serekunda te Serekunda la juddoo a moo it a ñu fas yéene ko jébal fo foofu si diwaani a Serekunda gis nañ comme ni ngeen ko gisee kilifa wax nañ fi lu am solo son si mel ni ñoom la Ousainou Darboe ñoom xoto Halifa Sallah ñoom Amat Bah gis nañ ñoom ñëpp wax nañ fi wax lu am solo ak yeneen ministre ñoom ne liggéey na ak ñoom débisi jamono nemsiyel Sadola Karabajaw ak jamono PPP kon nekk nag kàddu la xam ne am na soo bu baax gis na ne comme ni nga ko gisee léegi kilifa yëpp ñu ngi taxaw pour lan ñu sumee ñoom imam ratif maska ñëpp ñu ngi fi pour a julee ko suñu paree dem si Serekunda si bàmmeel bi foofu jébbal ko boromam amma daga komi a yaji nyamin tan abe gamen tan steve gibe ka a to mi mbota jami ko non kan ko aye a nyaton ko le nyin dina nyaton ko mi a yemin fama mi kata kuma mi yanko a ay min I mean, bara a ah, banko kan ngaje ah, a ah, leya usen dawo be ko makke no fajan a honorable alif halifa salan ka ko honorable amad bawol ani mr ko mi an ko ani yedo ko a tamutuma min an ka ko jawalan la jamana ani ppp mi an ko a wa ma pate yo ko a a a bake a aya jenya a Funga, fure ke so mbe sallama jana problème mos ya sama a sero ko na baro ko am tumo mi ko a oje mu sero ko na jebal ko a bormo sidwani a sero ko na ko nuko a kelifay wahid a jamono bo amne mom waa Serekunda moo tax waa pipeline nga xam ne fii la toog waa ñu jébal ko waa Serekunda nga xam ne nekk na cër boobu ne jox nañ la ko gis nañ ne wax nañ lu am solo bu baax baax lu si mel ne ñëpp leen développe ne ah, dina am solo bu baax a baax ah, waaye du def dara ah, ñu indi jule bi su leen indi jule bi ba pare dem foofu jébal ko boromam comme ni nga ko daal di gisee nii mbégte moom daan amit na su ko yàlla mal moom sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ne meeg maanaam taxul mu dal di naagu wala muy dakk yaakaar kon ku gem yàlla ngi ni nee na bi mu ne gëm yàlla dafay dalloo nit day tax nit ki dal di wax nag ilimaan yëpp ñu sunu Omar bi mu ne ngir ka mbokk gaa tax waaye moom bi alimaan yi fi ne sëriñ bi mu ne kenn ku nekk doyoon na ci pour mu jiite ko waaye dañ koo tànn ngir mbokk ga rek sëriñ bi ne ne man ko waxee nag sëriñ bi mu ne nangu na ko waaye jébbalaat na ko sunu mag muy imaam baabali xam-xamam matee na ko maandoom matee na ko jege gu mu jege ki ñuy julli ci mbokk yi tam mate na ko sëriñ bi ne lii mu wax nag mu ngi cay sàkku ci imaamu raati bi toog nga xam ne mooy imaamu réew bi mu ci limaan yi ci turam moom imaam raati imaam Thierno Ka sëriñ bi mu ne seede yi nu seede na sëriñ bi ne léeg ñu ne yàgg na jotaay bi sëriñ bi na na ngeen seede ci seeni néew baax ngeen xam ci moom malayka yi loolu la ñuy yóbbowaale loolu moo tax jotaay bi lu mu yàgg yàgg yàgg daf koo jar dañ cay sàkk yërmande ci ki dem dañ cay sàkk yërmande ci ñun ñi ci des sëriñ bi ma ne mënu yàlla yi lu fee nga waa des ko te su ñëwee lum la fekkee rek noona la lay yóbboo mooy mën a kun mawut mu ngay waaj rek yow yaa ngi dox rek di dox say soxla waaye waajal ko waaj ga nag sëriñ bi ma ne la ca jiitu ca jullit julli waxtu ya juróom rek yàlla yàlla jéggal ko al imam bismillah tafaddal imam babali nee na mu ngi jéggalu ci limaan yi fi ne yëpp ak mboolem xalifa yi fi ne yëpp imam nee na Cerno Abdourahmane Bari bu sant nañ ko ñoom ñaar ba toll waaye nag sago amatu ci dara ci taxaw ndax amar sa lool amar loolu la bàttale woon te loolu nga doon wax ñu doon def imam nee na kon ci diggante imam bi ak xalifa yi ñi fi teew ak borom xam bi ñoo wax Pa Amadou Diallo. ki ñuy wax Pa Amadou Diallo. mu ne lépp lu mu amee mu ne lépp loo xam ne. waa ñaar amee na ko ci ay dëkkandoo. ci ay dëkkandoo ay xarit. ay xarit ay mbooloo. ay mbooloo moom dina ko gàll. moom dina ko gàll. الجزائر الله اكبر الله اكبر Não. Allahu Akbar. Allahu Akbar. waaw moo koy ah, comme ni nga ko gisee ne ah, gannaaw bam ne ah, julee nañ ko ba pare léegi ñu ngi ne ñu ngi ko eb si ma pour dem si diwaani ko dem ne si diwaani Serekunda nga xam ne foofu lañ ko fas yéene jébbal boromam jënc ko na fi jule nan ko be ko daf nan ko ko ma ah, ah, de gamna tasi a tuma a isa tamon be be ko ke nyame ka diala a maso min a sele a ba komi ayaji nyame comme nu ma ko waxee ah, bu ñu ko fidaa ñu ngi dem Serekunda si si baat bi nga xam ne ah, moom ah, foofu la ah, la la la nekkee foofu moo taxit a fa lañ ko ah, fas yéene ah, ah, jéem a jéem a boromam comme ni nga ko nekk di seetaane fii si Gambian Talents TV a am ne wax neen lu am solo bu bu baax a baax a ma do ko mi aba jikko nyam abe gamme Talents TV jibe kan live ko mi nga a tumon mi a bilam a di a tala o de iba de la ala ma ma do mi anko sel ko na ma do ko mi anko tumon mi a sel ko na a ko mi a TV Eh, eh, eh, abu ah, ah, ko mi ayaye gam ne tan sti ba a nimbo da jam fanan suwa ko na fanan ko abu e abu ta wondo ne ba da ngam ya tim do yimi ya ko mi fan mi ke ni iba be na ta ko mi gam ne tan sti ko mi ay ba je kan a ah, ni nya mi ta ayaye le a no sel ke a nya ta di na nya ka ada nya no ko ibe ma di a ke ne ka piya ko ke omon a oje a jalol a sedi a komi a baje kan nyamen tan a jamnen tan steve mingi kumbay ɗon hoddannoomi ɗa aali aali ay moto o yallaano kuuga o yamata makko on ɗon drive aali Yeah. yeah, yeah. waaw mbokk yi ba di ah, wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ah, dem si yàlla ah, kon nu nga gis ni fi na ne ñëw ni si bàmmeel Serekunda nga xam ne fi leen ko fas yéene ah, jé jànce jéba ko ah, boromam ah, comme moo ngi nekk di seen ni si leen ni si bame pulan jéba ko boromam maɗum komi yaaje ñamin a hana kamin fulata serkuna mbaɗe ko miyan ko tala uje jalo anga ko iba dila dila amarila jang iba mabolo jaloto komin Mm, abaji ka ñami gamete tv a life komin e, komin nga ko ñami mi ko a dino e wala to mo ne ya isandala e, nga ko bible ya nati sel ko nanya bi a to mo na a wulu to janga a musel ko nan ko wala ya, na ya nati ñan jam ka handia amari la kon albaje kan nyamin teng agamme trans tv a mbokk yi comme ko naka di gisee ni si gamme trans tv a sa sat ngamme nem si yàlla oje jàlla fi lan ko a jenti a daddi ko jébbal a boromam comme nu nga ko daldi gisee ne fin ni comme bi tey kilifa diine kilifa aada yaa fi borom na mba a ñëpp ñu fi kulen a fas yéene ko ah, ba borom kon ngeen ko daal di nekk di gis ne live fii si ah, Gambian Talents TV ah, gis nga ne xam nga mbokk am na jaaw ñu ngi ñëw Gambia nag bulan ñoom tam ñu wane seen jaar ñoom tam ñu wane seen seen tiis fii si ba ji fii si coopérer comme tala nañ ko mel ni waaw mbokk yi ah, comme comme ko gisee ni gars ñu ngi ko ah, daal di ah, wàcce suñ ko wàcce ba pare ko yóbbu xam ne foo nañ ko fas yéene génn kon gis gis ngeen ne family members PIO di takk der def nañ si taxawaay iscom gis ngeen ne naka di di gaal comme ni ko daal di naka di di di ndem si yàlla o oh, jëjë gis na doomam famille bi ah, ñoom ñoo ko nekk ah, ñoom ñoo ko ah, ko boo di def nga ne ku la jege lool lool lool lool lool daal di téye kees bi ne si meen famille ak ak doom yi soo gis nga ne ñoom ñoo ko amee nii boo ko waakoo la jéego borom nekk na xibaar yi tiis bu mag mag mag mag fii si fii fii duwaani si me bi fi nek na lo xamne ne daw la yaram bu baax baax baax Thank you. Thank you. سلام كنا ما ولا لقاتل ما بحقه ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإنسان عظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما سبقنا على آله حق قدره والدار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه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 benim benim benim benim Tamam. Tamam. فاتيا فلق الناس فاتيا فلق الناس صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة نتخوي قصبا من البلد نتخوي قصبا من البلد ko gasee baax na. ni ñu ko gasee baax na. bàmmeel nii lañ ko war di gasee. bàmmeel nii lañ ko war di gasee. ki ci taxawoon mooy suñu mag. ki ci taxawoon mooy sunu mag. Alhaji Mouhamadou Lamine Diop mu alkaali. Alhaji Mouhamadou Lamine Diop mu alkaali. ak suma rak Alhaji Basiru li. ak suma rak Alimam Alhaji Basiru li. ak Paa Malick bi tey du sunu rak. ak Paa Malick bi tey du sunu rak. ak doomi Lamine Diop. ak doomi Lamine Diop. toujours dañu war a jàng lii. toujours dañu war a jàng lii. jóg suñ biir du jóg ci sunu biir sanga niw sanga neew gas bàmmeel gas bàmmeel taxawee ku dee taxawee ku dee ngénte ngénte takka takka loolu la ñuy dundee loolu la ñuy dundee ñu bàyyi ci xel bu baax ñu bàyyi ci xel bu baax ñu ngee gërëm oojee ak jotaayam yëpp ñu ngee gërëm oojee ak jotaayam yëpp ñu ngee gërëm Baba Tarawale ñu ngee gërëm Amir Baba Tarawale ku taxaw ci feebari oojee bi ku taxaw ci feebari oojee bi la docteur am suba bëccëg ngoon ñu fa docteur am suba bëccëg ngoon ñu nga fa ñoom docteur Khan ñoom docteur خان نيبان فون نيبان فون ممكن جملة ممكن جملة دومي جميل فراج دومي جميل فراج لا أسد دياب أسد دياب كيتي أفريقيا كيتي ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرحمن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 waaw mbokk yi ah, béykat yi waa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un comme ne ah, ndef fi yàlla honorable OJ di nga bi fi mu nekk ah, bàmmeelam fii lañ ko daal di jégal jébbal boromam comme ni nga ko baaxoo di defee lu ñu diine islam comme ni nga ko defee fii lañ ko jënti kilifa bi teew ne famille teew ñëpp teew rek nekk a la xam ne bu baax ba gis ngeen mbokk ñëpp ak doom yi ñëpp ñu ngi ko daal di ñaanal gis xam-xam yu fi wàccee pour gi gën a yokk ñaan ne eh, lu ñu gën a ah, saa su ne nañ topp ah, lu ñu julli si waxtu juróom lu ñu gën a ñaan ah, a ni rafetal ak a jégal te te jëlale nekk na xam ne am na solo bu baax a kon honorable Omar Ojo nekk na ko xam ne duñ ko daldi faate maa ko duñ ko daldi faate def na lu bon si kon di la wax yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV kon jërë ngeen jëf Hello, everybody. This is a message from Washington West African Center calling us to mean a community that is loving, peaceful, and free from domestic. To all the West Africans the in Washington state, this is not the time for more Sabi and Nusi domestic violence. It did asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ñëwaat leen rek si Gambian Talents TV ah, ñëwaat leen fii rek tey gannaaw bi nga xamante ne depuis sundi ba tey ki nga xamante ne mooy OJ Jallow former minister of agriculture ah, jiitu woon na ah, tey nag si Wednesday ji nekk suul bi fii ci pipeline. mu nekk lu nga xamante ne lu daw yaram la di ko jaalewaat Gambie yëpp di ko jaalewaat. Gambia yëpp euh, ba pare ñu ngi ko jaale euh, government bi di ko jaale famille am di ko jaale àdduna mu nekkoon ki nga xamante ne comme ni ma leen ko waxee ku liggéeyal Gambia la ku liggéeyal réew mi la euh, ku def lu bare bare bari ci réew mi la ku ne OJ Jallow rek di nga sa xel dina dem si PPP sa xel dina dem si Sir Dawda Kairaba Jawara ku ne OJ Jallow rek sa xel dina dem si coopérative ku ne OJ Jallow sa xel dina dem si député bi mu nekkoon ku ne OJ Jallow sa xel dina dem ci agriculture mu nekk ki nga xamante ne eh, jàppale nit ñu bari si réew am na fi ay turandoor yu baree baree baree bari lu ko ko mooy mooy liggéeyam ak baaxam Euh, tey nag euh, ñu ngi fii am waat si pipeline rek comme niñ ko dee defee saa rek euh, depuis dëj bi ba tey Gambian Talents TV ñëw di fi génne li nga xamante ne moo nekk di am fii si kër gi right now ni beneen team bi mu ngi si jumaa bi pipeline ñu ngi def fi daaw bi président bi mu fa ak ay ministam ok mu fa ak ay ministam waaye nag ñu ngi fi am suñ benn naataango aji faatu moom tam dinañ waxtaan ak moom rek euh, bu ko defee euh, mu wax ñu kan mooy tuuti si wajee nuyu nañ jërëjëf si sa jaamur asalaamaaleykum Gambia man leen a jaale euh, Papa Oje comme ni ko de ooyee Papa Oje man leen koo jaale fu mu dem gënal ko fu mu jógee saraxam yaaga seen loxo si loxo njaboot bi ak Gambia ñu ko ñaanal tay su ndax papa Oje um, papa bu baax la woon si njaboot bi because taawam bi aji see jaalo suma cousin la te papa Oje feebar bi yàgg na ci moom waaye fu nekk nii alhamdulilah politicien bu baax la woon Gambie la jiitaloon ci kanam bugga réew mi ba ñëpp xam ne bugga na réew bi noonu la bëggee tamit njabooti Gambie especially journaliste spécial journaliste yi ubbil ñëpp la ubbil seen bunta man maa ngi fàttaliku benn programme bu ñu demoon in 2018 bu mu nekkee woon ministre ñu doon dimbale uh, di unprivileged uh, farmers waa bi pare o ñoo ko sponsor te programme bi woon it was successful because ñooñu noonu ñu doon siya ay handbooks pour dimbali dimbale uh, lii nakal tuda farmers yoo xam ne ne den niiw doole te nag moom Gambia joy ne Gambia jooy neen am neen naxar te naxar bi moom naxari ñëpp la te ñu ngi gërëm président Adama Barrow ak cabinet ministre bi gis neen seen taxawaay juma bi fees na ñu ñëwaat si kër bi kër bi gën a fees ñu ko ñaanal fu mu gëm gënal ko fu mu jógee te Papa Oje ñëpp la ibiloon seen bunta dafa réyal ñëpp payos ba pare man lu ma gënaa si nee si Papa Oje moo nekk he was so honest waaw honesty bi la jiital te ñu ngi ñaanal suñu njiiti réew mi ak ñeneen jiit ñoo xam ne ne ñu ngi si lii bi ñu jël Gambie teg ñu roy si moom jël Gambie teg ko si kanam ñu faate lu xew rek waaw ndax tey nag du bési wax bési naxar la waaw bisi jaale la ñu ngi ko jaale suñu yaay yaa awa Jóob ak njaboot bi ñoom ah, ñoom Dings ñoom aji sey ñoom aji rugi ñëpp ñu leen koo jaale ah ñu leen naa wax ne ñu muñ àdduna lii la lii la ñoo xaar ku mutule rek dem waaye mu rafet te nag rafet na ba ñëpp mu ngi koo seede waaye sant yàlla sant yàlla bu baax a baax. jërëjëf eh, dégg nañ am suñ naataango boobu lu mu am si papa OJ ndaxte comme lim ko waxee rek eh, papa OJ wala oncle OJ OJ yu ñëpp la wala maam OJ eh, man moom su ma gisee rek daf ma dee wane ma génjoore yow moom maam nga ma def mu nekkoon ki nga xamante ne dafa his media friendly ñëpp la amaloon jaama saa yoo ko ooyee pour interview wala saa yoo ko soxlaa pour interview buntaam yaa ngi ubbuñ Eh, gis ko amul benn jafe-jafe kooku nekkoon na politicien bi nga xamante ne dafa boot ñëpp ndey ji siix la Euh, politiciens yëpp la bootoon emutoon si PPP kase ñëpp la amoon noonu relationship bi nga xamante ne euh, dafa dafa am solo lool ba nga xamante ne euh, fu xewle dafa sol dem si ku nekk si problème dafa sol daalam dem si mu liggéeyal Gambia bi lu bare bare bare bari def ci Gambia bi lu bari suñ maam yi yëpp ñëpp xam koy OJ Jallow soo waxee OJ rek man bi ma njëkk a gis nataalam maa ko gisee woon si suma néegi maam mu tay ko fa nataal bi nga xam ne sax la defee woon afro boobu noonu soo waxee mu ne kii mooy suma politicien eh, mu nekkoon politicien bi nga xam ne bala mu nekk politicien sax eh, ci coopérative bu doon liggéeyee eh, dëkk bi xam ko si dem badi bu ñëw ñëpp xam ko si si liggéeyam boobu noonu mu ñëw nekk politicien tamit mu nekk politicien bi nga xamante ne dafa boole ñëpp te xaw ñëpp nekk député Eh, liggéey liggéey bu mucc ayib Serekunda nga xamante ne ku def dara bañ la tuddee koñ koñ oh, nga xamante ne comme def nga lu rëy comme li ma daan wax ndem si yàlla Efri Mbay eh, nga liggéey bañ la tuddee koñ wala nga am solo si gox bañ la tuddee koñ nekku ne ñëpp lañ dee tuddee koñ waaye OJ soo demee tey ba tey ko ñu OJ la ñoo wax ah, li ko job waaw li ko ko turandoor yi nag ah, bari ba bugg a dee kon loolu liggéeyam moo ko ko may xarañte fa moo ko may baaxam moo ko ko may ah, kon kooku tey mu nekk tamit at yim am ñëpp ñaan yàlla am at yooyu noonu parce que ku juddu 1946 yàlla jël sa bakkan 2023 loolu bari na gis na ay set setaatam suñ sañoon nag mu nekk fi ba kanam a kanam gunge njaboot gi ndaxte ndam gi am na solo lool waaye nag àdduna tëddee noonu ndaxte àdduna moom nii la rek euh, gunge ma maa ngi ñëw la euh, comme nu koy soose di waxee ndandang ngee bendu wala be jee euh, waaye nag ñu ngi koy jaale waat ki nga xamante ne mooy président Barrow parce que gis nañ ko fi si monde bi ñëw na fi ànd ak ay cabinet ministre am ànd ak ay député ànd ay dignitaires yu bare bari eh, ñëw fii eh, jaale si dëj bi eh, ñu dugg ci biir néeg bi waxtaan waxtaani famille compare ko with the naka la tuddati AMRG e waaw ñu ngi ko see gërëm tak si dundaam mun ne ñoo wax amoon na ko waaye tamit bu mu gaañoo tamit gis neen ko waaye tamit tey moom naka la luttale rafetu lu neen taxawaayam bu baax a baax a baax a baax si gouvernement bi ndax maa ngi doon dégg si benn interview am mi ngi wax ne ni moom Gambie moo ko ñor moom lu nekk Gambie la moo teg si kanam mu nekk koo xam ne ne Gambia mooy léppam si biir even si biir feebaram ñu ne lu ma daan dégg ñu ngi wax ne ne ku ñëw daf laa advice di waxaa yow yaa loolu nag ko am sax si njiit am na lu rëy waaw fu nekk nii président Adama Barrow ak ñu fa ñëw yëpp tey wax neen wax bu rafet si Papa OJ na Papa OJ du du du du Papi Jalakunda kese Papi Gambia la woon te gis neen taxawaayam depuis naka la tuddati former président bi ba bum bu mu gaañoo taxaw na wax na fa kàddu yu rafet yu daw yaram waaw ñëpp seetlu neen ko ne Papa OJ niti dëkk bi tey nag moom sun xol fees na ndax ñaaka neen diga diga den dee ñaaka waaye tey nag gën nañoo ñaaka waaw ñu ngi ko ñaanal fu mu dem gënal ko fu mu jógee suuf seeda si kawam yal na ko yonente bi teeru sallallahu alayhi wa sallam ak ñu fa nekk ñëpp jërëjëf Binta dinañ dugg ci biir rek nit yi rek ñoom tam ñu wane seen jaale wane seen naxar loolu dina am solo Binta ñu dugg ci biir rek waxtaan ak nit yi ndaxte right now ni xam na ne ñu ngi koy fidaaw foofu leen ci jumaa yi pipeline bi request on nañ nag state burial waaye yàlla def na loolu munta nag dinañ dugg ci biir kër gi rek su ko defee ñu waxtaan ak ay fiw rek ñoom tamit ñu. wane jale salam salaamaaleykum Ya boy sigil leen luñ bokk so wàll tur bi nag bala maa ngi jégalu rek dégg nga ñaanal aji jégalu waa ñaanal ko yàlla yërëm ko xare ko àjjana na di dina fulaayam <laughs> salaamaaleykum Salam. waaw man fat luñ bokk sa wala sigil sa wala yaay kan man fat jaane laa tudd ante f wow. du jigéen si aji jiitu bi di Racky Awa magi Awa Joob jabarji ha ah maa ñaanal aji jiitu bi nit ku e, baax la ko yaatu la ku open la ñu ko ñaanal lepp lu mu liggéey fii yal ko fekk si si si ajana yal ko yàlla yobu si ajana bi gën ko we yàlla wàcce tele ko si aji jiitu bi nit ko baax la nit ku yaatu la ku baax la bëgg na ñëpp ñëpp la emale wa ñu ko ñaanal bu baax waaw jërëjëf Salaam alaikum. Min ko nene bami innete. Ah, yo oje salam. Oje ko ko koto an ko miñirawo ko mi ko miñirawo makko. Nen ko nene makko ko yaaye an Rugi Diallo. Min noon ko birkama mi inni. birkama berewulen. Ko fatunde mi are oje ko koto am moƴƴo ko woni wo no lan. Eh mi sella koye ɗanɗen sella ko mi dari mi tawi ma arani mi fatu de makko den yalla yurme yaafomo allah naademo aljanna dawsi sabu nelaɗo sallahu sallam no suni hannde eh, no suni ya eh jarama eyi eh. assalamu aleykum aleykum salam mbur naka nga def sigil len nuñ bok sigil sa wàlla naka nga tudda man ay la tudda dañoo wax suma jaay la suma harit la moo man oncle Babali mooy suma oncle waaw oje suma xarit la daf ma woon a buga saa wu ma ñëwee fii jarbaar rek la ma daan ooyee ñu ko ñaanal rek lim liggéey si àddina ko yàlla na ko fee fekk àjjana firdawsi yàlla suuf seede si ko am mënuma wax sax ngir xol bu fees billahi wallahi taala salaamaaleykum aleykum salaam sigil leen ko sigil sa yaay kan May Fatima Ly Fatima Ly mhm. papa Ouje kay suñ bugee wax baaxam duñ fi jóge man papa la si man bi ma sey moom moo ma maye daanaka lu ñoo doxal Likunda moom moo ko def moo suma ñoom papa Cousins lañ di ko ñaanal rek ndax depuis bim dédoo àddina balaa boobu sax depuis bim feebaree daal dama dama ko fiil torop bi mu génnee àddina ba tey ànduma ak suma suma boppa am not 100 percent di ko ñaanal rek yal na suuf sedda si kawam mbaax gém jiw nit ñi yal na ko yàlla boole ak malayka yërmande na fàttaliku si lum la daan wax wene any word bi nga xamante ne danga ko li ma mun a gën a fàttaliku mooy suma dimaan ba bugg a give up di nga digga mu ne ma my daughter you can make it particularly bi ma amee admission si university bi ma ne ko papa dafa am meeting ma war a amee njaboot I was just giving it a try mu ne you can make it I know you're a strong lady you can make it anytime bu ma demee ba bugg a difaasa dina ma jox that courage yal na yàlla yërëm xaare ko aljana yàlla may ñu ñun ñëpp xoli muñ jërë ngeen jëf yéen tamit jërë ngeen jëf mère sigil leen yow la kan ko to mm, ko tokoso kat kon tokara yaay ko ko rugi jallum wiyetemi mm-hmm. allah yurmo yaafo allah hajin ba aryan sal mako boy juuɗe makko ko liggi ko allah yob modum ko yob ko allah yoɓmo ɗum yaar suka be allah wurni barkina allah hawru makai makkay e madina a jarama jef assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah sigillen ɗo sigi sawala yowa satur man mane ka salali magi Babali ñoo bokk ne yabay baay Oje Jallo ma wax ba am sax lu ma jëriñ man ci adina Oje suma xale mo len jangal isko man ma faamate Jallo rakam ñoo do fokkil Jallo Kunda ñun fa lañ yaro ya yaaru gi suñ bàjjen lañ ko gorgol ñu suma yaay suma bi mu ko tuddé doom Rugi Jallo koku mu nga Angleterre Oje man salali munuma wax mbax mi ma defa ci adina moo dégg léegi ba mu dee ba léegi man suba moom maa gi sog maa ngi feebar yal ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaare aljana yal na aljana wàccuwaayam yal na mu aljana firdawsi mu fekk fa ñëpp mu fekk fa mboolem julli gi yala na mbuuram yàgg suñu loxo man de oje mënu maa wax li ma jëriñ ci àddina jàpp man jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum waaleykum salaam sigil luñ ma jide min koy ñaanale yàlla ko yàlla xaji ajana na dee bi nekk noflaayam man ma wax ma waxee dam am tension wala ma fay jooy yal na ko yàlla yërëm ci yeexee ñu salaamaaleykum aleykum salaam sigil leen ko sigil sa wala nag Samira oye suñ dëkkandoor la xarit jabaram suma xarit la lan nga ñu na wax si moom ci mbaaxaayam ak loo mën a seede si moom ak loo mën a fàttale ko si moom li nga xamante ne loolu la daan waxul moom koy oje moom lu baax rek la nit yi a wax si moom ku baax la woon waa buga na mbokka buga na andi jaamaami buga na ñëpp daal yal ko yàlla yërëm fu mu dem yal na ko jëna ya fu mu jóge dee nekka noflaayam yal na ko ñaanal ya. ya salaamaaleykum sigel leen luñ bokk sigel sa wala satun ñu ko wax mas rek ndeysaan ko OJ niti ñëpp la OJ bi moo nekk minister du tey he was a young minister ci time yi e Jawara man maay e jabari samsudin Sarr ñoom ñëpp jógee Serekunda so OJ su dee jabaram nekk nit yi ñëpp ñun ñëpp day ñëw rek pour jàppale jabaram waaw ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. lan nga mën a fàttaliku si oncle OJ xanaa lu baax lum def rek bi OJ bi moo nekk ministre man I was young di dem Nusrat high school so I was a kid waaye lu baax rek la OJ def lu baax rek la musa def fii and he was a charismatic person boo xam ne ñëpp a ko buga waaw su taxawee rek ñëpp kontaan su waxee ñëpp kontaan so tey ñu ngi ko ñaanal rek yal na ko yàlla may arjana fu moo dem mu ginal ko fii waaw ñu ngi ñaanal jabaram tam mu am xoli muñ baax na jërëjëf jaama rek man Juwaana Njaay laa tudd Lancaster laa dëkka oje dama liggéeya moom ministre of agriculture as mu nekkoon suma ministre ma amee seen record si yëpp léegi jabaram ji awa ji ma xam bu place du def dara te ooluwuma ooyal leen ma Mrs Njaay toog waxa suma daan ñibbi weekend nga gis mu kafa man ree ne ma xaaral ma utal la dara nga yokka si sa defa xam nga jigéen yi yéen a amee wàññi bi bilaay krak ju ka man ekiti jox ma taranga daal ak respect buga ma bi bem bem bem jeex tak tak tak tak man ah yëgoon nga feebaram dama ko dee kool di wax ak moom di ko seet dama ko dee kool even bi suma doom ji winee dafa yónnee awa Jóob ba suñ kër ne mu ñëw seet ma waaw bimu winee ndeysaan ne ko mënumaa dem fen juwaana suma sista la mu ebal jabar ji pour mu ñëw ndokkale ma xam nga lifin def solidarité ak man which I really appreciated maa ngi ko ñaanal fi mu jógee yal na fi moo dem yal na génn fu mu nit ku baax la nit ku saaf nation nam bi nit ku bugaan nit nit ku down to earth lum am moo nit ñee ko bokka xoolut ne am nga xoolut ne amuloo moom daal lum foog ne daf ko war a defal nit rek defal na ko ko yal na ko yàlla xari arjana yal na ko de dee di noflaayam foo natee baaxaayam romba na fa man moom suma xol bi dafa fees depuis barki dimba dama bañ bi suma presso bi jóg ndig daf ma jox sok ba pare dama jooy ba pare ma fi bi am xam naa nim encounter yee ak nim sofee pour ni nam bi so am na nu doon demee waroon naa demee mel mel defal lañ ko leneen lu dul ñu lee ko fële waaye ko ñaanal yal na ko yàlla jégal bàkkaaram bi yëpp te xaree ko arjana wax ko ne tey bi yëpp am loos tey ñu Gambian si wool bi yëpp am loos ñëpp a ko moytit lu jooytu ñëpp a ngay jooy soo génnee si mbedda bi nga xam ne dëgga dëgga ah na tëdda nelaw rek am nañ yaakaar si moom arjana teeru na ko ba pare ok sige sa wala yow ya, yai ka. Ya. <laughs> yang madugal si wah de man mënuma wax man mai antitud eh suma buge wasi si oje du jeex parce que suma xalel ya beni mama ma oje hamna ko hamna suñu Be pare oje ño daan kampe ken ñom alaaji jaañ ba nim tëdda feebar ni musuta faate kenn du faate kenn awa joob dama dama dugga rek dafa kontaan parce que xam nañ suñ diggante du tey suma xaleel yaa ba ni ma magee nii oje xam na ko waaye man ko ñaanal daal fi mu jógee fi mu dem nii yal na ko gënal fi mu jógee yal na suuf sedda si kawam yàlla xari ko arjana OJ dafa liggéeyal àddinaam ba pare amul dara lu lu nit di ragal ci moom man de suma bopp ragaluma si moom parce que xam naa ne fi mu fi mu tëdda dina fa tëdda ak jàmm te yàlla na ko xare arjana parce que lim liggéeyal doomu aadama rek kenn mënu koo fay dafa liggéeyal boppam liggéeyal njobootam kenn mënu koo fay yàlla na ko yàlla xare arjana na malaka yu selay yëpp yal nañ ko teer jere jef salam sëriñ Sawala nga ñëw yaay na ko yàlla xare arjana suma xol fees samb nu maa wax nu maa wax merci ah Oudjé de ma ne ko yaa am leen ma tuuti su ma xol bi dafa fees xam nga sax lu waaye di ko ñaanal yàlla rek fam jëm fam fam jëm yàlla ah, na ko génnal fi mu bàyyee ko yàlla may xol njabootam yi xoli muñ yàlla oyofal suuf si kawam seedal suuf si kawam yatal bàmmeelam leeral bàmmeelam yàlla bu mu wéet bàmmeelam li def liggéey si àddina yàlla na ko fekka mu ngi noonu ndax mi ne te doy na waar tey ki jiitum nekka ku baax ah, ku wax OJ Jallow wax mbaaxaayam wax oyofam ah, wax ah, diineem mu nekkoon nit nga xamante ne faad of all la taxaw na Gambien ci bari taxaw nañu bare bari kon su demee jiitu foog ñu waxtaan ak nit yi foog nit wax luñ ko xamal ñaanal ko loolu nekk na li nga xamante ne am na solo inshallah way iya, sigil leen luñ bokk sigi sa walla wax tur bi nga def na nga def ah oje oh, de ku baax la loolu rek la nit mën a wax ku lewet la ku yaatu la ku am itte si nit ku bëgg nit ma koy xam boobu mi ngay liggéey commercial bank ak jabaram yaa aw ñoom ñëpp ba baax mu nekkoon parlementaire secrétaire jamono e jawara ba léegi benn façon nit ki la luy ceeñ kanam di di di sewer du soxor wax dëgg yàlla ku baax la yalla na ko yàlla xare ajana yal na saraxam yàgg ci loxo mu njabootam gi yal nañu juboo nekk benn ci barke alquran al karim jërëjëf salam waaleykum salam gi leen nañ bokkam wala nga ñëw ba sattu kan yaa Fatou Njaay salan la oje oh, suma caameñ bu baax la suma caameñ la nit moo suma xarit doomi nijaay doomi baajan lañ nekka suñ caameñ gu baax am itte be buga dee loo xew la dina fa taxaw oje daal xale yi gërëm nañ ko mag ñi gërëm nañ ko ñëpp a ko gërëm man suma kër mag lu fa xew moo fa jiitu di abdu ñaan moo fa mujje kay ñu ngi ko ñaanal yàlla xare ko arjana yal na réccu lim fee def lim fi doon def yàlla yërëm ko te yéen yàlla def xoli muñ jërëjëf aleykum asalaam sigil leen sigi sowaana sa tur naa di ñaanal aji jiitu gi dem rek oje nit ku baax la nit ku yëg nit la ku gis bisam bi tey rek nga xam def lu baax rek am solo oje nag suma goro la yàggu ñoo xamante waaye suma doom muy sey ak jarpaatam ñu ko wax Omar Sy taawam bi mu ngi ko tuddee Ami doomam taawam doomam bu jigéen ñu ko wax loolu moo tax nag tey ma teew fii si bés bii lu di ko méttitlu di leen ko jooyle ndax nit ñu baax lañ Pa Omar nag moom nit ku baax la koo xam ne la téyel na ma suma doom téye bu te du demee foofay du leen digal lu dul lu baax rek ak jaama kon yenn ya suuf sedd ci kawam fam jëm yenn ko gënal fi mu jógee na ko yàlla xare àjjana yenn na dee dina flyam asalaamaaleykum asalaamaaleykum aleykum salaam yaa leen ah kan yo nte aysatu maare ade oje la oje nte ndince o wala yaa a diŋo futu a do koma a diŋo futu safi jaalo mbitan musoole mbar mo kende baaya wala dinna aɗum ŋaalon ka botan mo kendol le bala mi duwala o je lawo maari alama ala e laajaŋo sooneyaya alama ala yaa so jannatu firdawsil alama ala yaa koomo sumaya alqurano barako rasulu horomona barako baraka baake mi duwala hmm. sigille చూస్తున్నది మనం చూస్తుంది బెస్సం ఒప్పుకుంటాం కై తోడి మాకు చూస్తుంది ఒక బిల్ కామాలి మీరు సీజన్ బిబ్బి బిల్ మెసుదురు బాకలే ఇంకో బిల్ జామ జామ ఫంగతం కుమోస్ కలమ్మ ఇంకే మా సార్ సిసి ఓజి ఓజి సేరియా అవం బరా ఫా అతోలా అతోలా abin buya kuma je sau na musu bobu sai sau kan sai abin ne sai o ya man bulaje binci ma ban sa man bulaje fu sayente ni fo be bi mu o so be bi be su su mbake be wala ajal amane mo kala ni ka faro kala barka barka barka mero nge ko assalamu alaikum jam ngeen mare tambile ay setu sane wala wasi oje wa ke oje de dara ka mun wala suma magla suma eh, suma yeble dal de suma jikar magam la mo suma jikar na mom amul lu mbaa suma jikar ku nekkal ko munal ku nekkal defante suma jëkkër oh, jabar gi tam awa jóob mun tamit suma mag la moom tam si wàllum jóobeen du ko mën da suma yaay mu jóge si wàllum jóobeen la jógee moom tamit dana ko suma mag la OJ daal mun yow affaire ba mu jeex su mu wax affaire fi nga enu tey daal ñu ko ñaanal daal fi moo dem yéen a ko gënal fu mu jógee yàlla xaral ko àjjana ne ko suuf sedde yéen ne nekk dof laayam yaa rab yaa suñu borom ni ku gën la ni ku baax la ku julte la ku bëgg doomu adama la yërëm doomu adama faal doomu adama kon ñu Life. And we thank God for the memories He's left us. And we pray that all of us would follow His footsteps and do more than He would. What are the some of the memory you could remember? When I was in Form 5, I was looking forward to get a job at the quadrangle. Then my uncle said, okay, you can come and work at the quadrangle, but we're going to take you to the machine room of agriculture. And I watched as I saw people sitting by his office. And all I could hear was him saying, next, next, next. I said to him, Oji, is this a hospital? Are you a consultant? Never forget him in the history of this country. The history of this country in terms of politics would not be written without his name. So we will forever treasure those memories. Assalamu alaikum. Alaikum salam. boy, misal. Jarama. salminima mm. joni o je diallo minon salmina famili mum o fof mayde nde o je ko neɗɗo moƴƴo gilata komin sukaɓe kammin gorko am o woni sehlaɓe kamin yandata ɓe immoda gila time coopératif ɓe wondi coopératif ha ɗon iwi ɓe wondi ppp ɓiɗɗo am ido o ko o je diallo okkimbo gorko mm. mino salmina ɓiɓɓe ɓenne ɓe duwima ɓe yetanima bamu'en allah wati mu'en barke allah umnan ɗumen cuuɗi mumen ɗi kamɓe awa awa joog ɓe tinnanima oje mino ɗumen jara mino ɗumen yetta mi weltima beti kulle ko ɓe mbaɗi ko he baamu en mino ɗumen salmina mino ɗumen duwano oje ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo moƴƴo gila time ppp minen wondi e mum ppp minen wondi e mum ha hande ñalande hande allah tan sertidirta min simin arino ɗo suudu mum ɗo ko fija jala tan fija jala joɗoɗa e minen ko minen hurotta e mum booli goto min ñaama o je ko neɗɗo moƴƴo yo allah okku ɗum jannatul firdaus barke allah e nelaɗo allah aleykum sawala aji mati ñagaɗo je hana baax rek je kay maa ngi jaale suma boppa di jaale Gambia o je ku baax a baax la yàlla ko yalla xaral aljana ya de di noflaayam si barke Muhammad barke salatu fatih yalla ko Muhammad teru. si baaxaayam bi bu baax la bugg a Gambia bugg a réewam bu baax a baax a baax la waa kay salaamaaleykum salaam dama fi foo jeekañ xanaa baax de yàlla ko yàlla yërëm xare ko àddina yàlla fu moo dem fu mu jógee mu jënal ko fu moo dem yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla may àjjana anti seera naam good afternoon ndax good morning la <laughs> ah, kay si sawala Sera soo doon wax si OJ rek lan nga ñu mën a wax si lan nga mën a fàttali ma gàttal ko waxi OJ day mën naa ko wax te fa awas du suma rakk la suma broda la OJ Saint Augustine la jàngee ca Labia buga ñoom Bishop Clary OJ maa ngi la ne baax na baax goo xam ne bam nekkee Minister of Agriculture ca réewum Jawara ba mu ngi ame woon benn bu xonqa waaye oje benn sam aju ajuma samedi du ko moom joola buy sey eh, kaani fi ng cooc moto ba la ñoo jël mu def ca essence jox leen ko def ca décoration oje mooy ki nga xam ne dafa am religious tolerance man oje suma xarit la bur bu set mu ne ma yaa awa jàllo loolu na uti marché bi every day mu ne ma yaa ay dañu suñ ju oje daal oje baax na man duma ñaanal OJ OJ na ma ñaanal bu fi kenn ñaanal OJ yal na yàlla may arjana OJ dafa liggéey arjanaam àdduna liggéey ko alaxira OJ bu ko kenn ñaanal yal na eh, suuf sedda ci kawam suuf sedda na ci kawam am na arjana OJ sent la mu moom moo ñoo ñaanal Awa Diop nag maa ngi ko gërëm sëy na ba seey Awa Diop njaboot gi yal nañ sut OJ fan sut ko barke ci sut ko aleel Awa Diop jërëjëf yéen Q TV leen jërë leen jëf maaleykum salaam. yaa koy sigil leen. sa waala. naam OJ Jallow suma goro la suma broda la suma xarit la xanaa rek di ko ñaanal fi mu dem yal na ko gënal fi mu jóge yàlla xare ko àjjana ñaanal njaboot gi yàlla may leen xoli muñ te muñ loo leen ko te saxal ko seen xoli baax yalla defal ko fa aljanna kowe kowe barke yalla ak yërmande barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jamba baax na jërë ngeen jef yende tam waa QTV salaamaaleykum sigi sa waala yow tam hmm, yal na ko yalla hare àjjana de di noflaayam yalla bu ko chat giitu ci bamelam oo je luñ bëggé wax ci mom sa du jeex parce que ñi ñëpp buñ waxé ci mom sa amna luñ suñ mak la ñu ndey mo ñu yar man dama juddu gis oje maga sera judo sera kuna maga sera kuna ñun oje mo ñu yar si lo xalaat rek mo ñu ko yaree parce que kay la oje loo xam la role model la si ñëpp everybody political fo xalaat oje is a role model parce que ku roy si mom sa dunda tay sa dunda ëllëg dafa jak parce que mom dundam demba dundam tay tey oje bam deye deyee ba tey kenn musu fe taxaw ne bam ma defee li ni amut ñëpp benn wax bi la oje baax na yaatu na soo ñëwee si këram gi sa waxtu añ jot nga raxasuloo sa loxo bi boo bokkaa moom añ mu ne la génnal suma nekk bi ba ma añ ba pare loolu yëpp si yaatoom la a ah, suma mag nag awa ñun ñooy morom ñoo defandoo lu ne maa ko gërëm di ko sant ni ko anti seera waxee rek sëy si wut yurndu si wut dafa ñëw seey sëy na ba sey bi jeex ca ba moo ñàkka ba oje amul dara ba mu nekk ministre ci Riji ni Jawara yëpp ba mu ñëw si 22 years bi nga xam ne taroon na métti na loo xalaat dajoon na ko si awa lu ne daj na ko si 22 years boobu ba yàlla indi jàmma ah tey la OJ mun a taagoo awa ndik dee waxtu dee bu jotee nag kenn mënu ci dara loolu rek a mun a taagale OJ ak awa parce que ñoom ñaar dañ understandante mel ni pour ça wuñ kon ñu ngi ñaanal awa yal na mun a yàlla bu ko cat jiitu a njaboot gi fi gi fi nekkoon na moom yal na yàlla def jàmm diggante ma njaboot gi yàlla buñ féewoo yàlla buñ gis noonu ah ñuy ñaanal suñ mag gi fi mu tëdd fi moo dem yal na ko gënal fi mu jógee barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaale Gambia the whole world ñu ngi ko ñu ngi jaale ñëpp. waaleykum salaam. gilleen nuñ bokk. Sege Sawala. ñu ngi ñaanal oncle OJ fim jëm na ko fa yàlla xare arjana yàlla duga ko sa arjana tu firdawsi malayka yërmande yi teeru ko gannaawam yal na seeda njaboot ji yenn la yalla tek loxo ndey joram jabaram yenn na mu ree koo jaama suñ wax bariwut suma mag ji wax na yëpp waaw yan na ko yàlla sibisa waala o ji ni ku baax la yenn ko yalla yërëm def ko aljana may ko aljana rahma ah na anti awa ñu ngi koy gis ah, mu ngi toog ak ay mbokkam mi ngi fii am si kër OJ Jallow gannaaw bi nga xam ne jiitu na si dimanche bi ah, tey nag am si Wednesday ji ah, di 17 mai ñu jébal ko boromam anti awaa ngi noonu toog ak ay mbokkam ay jege ñaalem ñu soutenir ko taxawu ko ndaxte àdduna moom noonu la muy demee demal maa ngi ñëw la rek salaamaaleykum waaleykum salaam moom munut wax merci gi leen waaw sigi sawal yaay na man ramat laa géeme laa tuta fii laa nekkoon di liggéey fii laa nekkoon di liggéey ci moom ah ana ñu na wax si oje comme ka fii ka doon ah mam na wax fii dara xanaa baaxaayam rek billahi baaxaayam rek waaw mu nekk nii duma am lu ma lay wax Gere ke fwai. Ne bala ma munu ma wax. Maa ngi fay naa Da nga Hadi luñ Suma papa la. Lan. Ne lan nga ñu mën wax ci sa papa. Dañ juróom. lañ bëgg dafa bëgg nit. nga jàng sa tur jàng sa laaka xam sa njaboot xam fi nga jóge xam kuy sa maam xam lu nekk sa yëf te bu la gisee in fifteen years America sax dina la fàttali ko that's what I love the most about it nga remember si sa papa meeting li nga xam ne loolu la leen daan wax su ñoo debate niñ lay waxee ñun ñaar ngeen live on together as a family Usually Julie la meloon usually julli laa daan ñëw ki usually li ma nekkee xelal waaw. ko ñaar. thank you. doom la ci OJ dégg ngeen ko mun wax xolama fees ndaxte affaire ba solo alaikum anti si leen sigil sa wala yow yaay ka no balal leen rek yéen tamit nga ñaanal ak jëlal man papa sigil leen sigil sa mun nga ñëw man mun nga ñëw yaay ka man maay Ismaila Diop di magi Awa ya bay waaw ñu ñu mën a wax si lan nga ñu mën a wax si OJ ok OJ li ma si mën a wax bari na bari na bari na suma goro la ba pare ma nekk magam waaye moom jëluma woon as goro suñu waxee mu ne man magam la te yàlla def na man lu mun a xew ci suma kër moo ci gën moo daan taxaw su dee pari wax moo def lu nekk ñu di di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla fam dem ba ko fi mu jógee yàlla xale ko arjana loolu daal mooy li ma mën a wax ci lu gàtta waaw ñu ñaanal njabootam yàlla jàmmal leen sutural leen may leen fan weer wér yàlla mën na ko yàlla leen ko defar darajaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf Sidi Sowal mën nga ñoo wax yaay kan ma daa wax ji baala la ñu na baax na baax na jërëjëf anti awa oje oh, lan nga mën a wax mën nga wax dara waaw noonu la du mën oh, a wax parce que diggante mag oje nu meloon nekkoon lu li salaamaaleykum salaam sigil leen ñu ñëw yaay maay kan man maay ajiya ame jallo di taawi Amadou Jallo di magi ñoom oje ak Xadi Jallo ñoom Fatoumata Jallo ku na xal Jallo ku na yi Amadou jur man maay mag waaw tey laa ñàkk nag sama xarit waaw suma doon yàlla dara du ko jot ca fañ toog mu nekk ca naaj wa su ma mënoon a jóg dem wax dinañ ko ir palasoor kees ga waaw man Maria Amy Diallo fàttali ko ci sa raka ci suma raka xanaa buga ma faale ma Omar ni mel man yàlla gis na ko yonent bi gis na ko man duma wax loo xam ne lu amut la waaw OJ dafa ma bugal boppam bañ na ko ba tuddee ma doom man nag may taw ñoom ci ñoom ñëpp ci sax mako ko ci mo o uje yo bokk ndey ak ah, man maa ko mag alaykum kii wax ah ya ko aljana Ya xare ko ajana, yàlla ya seddal suuf si ko am ko ñaanal parce que moom lim fi ah suka koy ya alla fe ya kay uji oje dafa liggéey gannaawam dafa liggéey gannaawam ko ñaanal yàlla xare ko aljana yàlla ya seedal suuf si koon ñun ñu yàlla bàyyi ñu fee ba sa kanama kanama kanam ñu bugg di ko ñaanal be faw be faw be faw insha allahu rabbi salaamaaleykum aha nga def fi sigil leen sigi sa wàll ñoo ko bokk suma suma mag la ñoo bokk ndey ak baay ngeen mën a wax si sa ah xanaa nit ku baax lu baax li ko nit ñiy wax yëpp loolu yëpp moo nekk si moom moom nekkutoon sax suñ suñ broda rek waaye dafa nekkoon suñ broda ak suñ xarit comme ni ko nit ñi waxee rek nit ku baax la ñu ko ñaanal nag yàlla yóbbu ko si eh, aljana yi gën a kawe mais àddina nag kenn àddina ma ne kenn nekku fi kenn du fi nekk ba faw waaw demal maa ngi ñëw rek waaw ñu koy ñaanal bu baax a baax fam dem fa muy dem daal na ko gënal e fi mu nekkoon fii kay jërëjëf salaamaaleykum sigi leen luñ bokk sigi sawal mu lan nga ñaan jiitu bi ak lan nga ko wax mm. o ñoo bokk ndey baay suma mag la waaye daf ma mag ba nga xam ne man dama ko jàppee woon sa as ma papa parce que moom tam daf ma jàppee as doomam ah moom ka ñàkk nañ ko rëy rëy rëy man lu ma di wax rek mooy OJ lim liggéeyal Gambia waxuma keneen def na ko de waaye moom lim def ah ñëpp seede nañ ko tey su nekkee li ko nit ñi di ñaanal rek rek rek la ah ñu de kontaan nañ si moom ka ñu ko yàlla rek eh, yërëm ko te xare ko aljana waaw léegi si bi fi bàyyi I just hope ne rek ne nit ñi dinañ mun a pick up on that si parce que moom moom niti nit la woon niti nit ñi la woon dafa bëggoon nit moom amul xaajaale xeet amul xaajaale religion he was always talking against that ñëpp dañ war a nekk benn mu ne sooy seet Gambia dangaa ne Gambian la waaye duma lii duma laa Gambian la so I hope ne youth si nañ ba emulate lim def fii nii si Gambia bi sigil leen sigil sa wàll ñaana ajeje xanaa di ko ñaanal rek yàlla xaree ko àjjana dee di noflaayam mu eewoo àjjana yam fa fekkaa fa seeko si yëpp ku baax ku bugg a nit ku bugg a mbokk rek lañ ko ñaan moom loo leen bokk na moom loo leen bokk man yumpaañam la ma jëkkër nijaayam la waaye fonko nijaayam rek ilaahi bugg a nijaayam ba bugg a dee ko ñaanal rek yal na ko yàlla xaree àjjana na dee di noflaayam yam fa fekkaa fa seeko si lagi santai aja MP aja lagi itu aja Assalamualaikum Waalaikumsalam ya ya marek mang nah, itu dak aji umi jalo oje oh, man tantam la yayam ya, suba mak la oje oh, suma dom bala bana torop ale eh, bu bala eh, topoto nama topoto na suma wakir ada topoto na anda na borom nit la tam dimbale tam def na li ko yàlla sant yëpp def na ko maa ngi koy ñaanal yàlla may ko yërmandeem dugal ko ci malayka yërmande yonente bi di jaatigeem yàlla may ko aljanna firdawni fatiha salaatu fatiha njaboot gi mbaay yàlla may leen barke bi fatiha salaatu an yaaga ko saraxal jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin sant naa yàlla su la abalee jël ko sant ko waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala moo kay ñu ngi ah, fi am toog rek si kër OJ ndaxte ñu ngi ni fi tege ñaale dëkkandooram yeeg mbokkam yeeg magam yeeg tantam yeeg doomam yeeg ah, ah, ñoo toog ni fii ni mu nekk lu ama am solo jëla meer di nga ko waxaat mu wax ni Joob li nga liggéeyal OJ yal na wàcc ci sa njaboot mu ne yaru nga tey nga bëgg nga mbokk xam nga mbokki OJ bëgg nga njabooti OJ doom ju mu bëgg nga ko yamale xale yi yamale ñëpp yamale sa njëkke kon nee na ñi ngi lay ñaanal yal na nga dugg ci bisimilaay génn ci alhamdulilahi rabbil alamina loo ci jaamu yal na ko yàlla nungu soppi ko xéewal fu mu fekk ko ci àjjanay firdawsi mu ne ooje njaboot gim fi bàyyi seeni bàjjen ne ñi ngi leen di jaale di leen ñaanal yàlla fan ak wér yal na ngeen sut seen baay fan te dese barkeem nee na fi seen baay tegoon tànkam foofu rek ngeen teg seen tànk xam ngeen seeni bàjjan xam ngeen seeni tanta xam ngeen seeni mbokk njàllakundaa daal ñu ne oojee tey jii rek lañ gis ci moom lu leen naxari te lii du gani kenn tey fii la ëllëg feneen kenn fu muy doon ku sa waxtu jot nga dem yal nañu fekk ci lu baax yal nañu fekk ci lu baax te bu egsee yal nañ dajeeg ndimbali suñ boroom njàllo kundaane ñu lay ñaanal yal na nga jam jàmm muuree koog jooba juba Nene ne ba Jaane nee na mi ngi wax ci sa turi family doomi ndey mu job, Jóob ni la sa mbokki jeuker gërëme non la la sa famille gërëme ko xam non la la gërëme nit ko andal and nga ak mom ci ngor ak tey ak jom ak sutura ak teranga lu waay wax ak yow sekkare lay doon sa digganteeg moom fii demb ñu bari yónnee nañ ci yow ne ku ci yàgg ci sa néegi say yaa tax ba ca caankan jàllo ndax su ñëwee di ko digal lu baax di ko digal li muy wax kon Jóob ñi ngi lay ñaanal yal na nga muuroog jàmm yal na nga muree koog jàmm ne ne ne na doomi ndey yëpp la gërëm bokk yëpp la gërëm dëkkandoo yëpp la gërëm ku fi ñëw rek amee na la njukkal yal na la yàlla taxawu taxawu sa njaboot oojee lim fi yal na ci yàlla teg loxoom ak ci njiitali Kéba Jallow di waa PPP mu ne alaaji suñ kilifa la mu aji duuta kama sami mu ne suñ président mu man waruma wax sax waaye def ko ni aji am waxal ma mu ne alaaji ooje mu ne bim tëddeeg léegi li nit ñi wax du jeex mu ne ñun ñii di waa PPP mu li ooje liggéeyal PPP mu li ooje liggéeyal Gambia government mu ne yàlla rek moo ko ko mën a fay kenn mënu koo fay mu ne ci biir PPP ñun mu ne OJ respect na ñëpp mu ne moom ba muy dugg PPP mu ne 1979 la mu ne coup d'état bi mu dem Angleterre ba ma ñëwee mu ne Awa Jooba ngi fi woon bis boobu mu ne OJ mu ne ko naam man ñëwaat naa te ci PPP bokat bokkaat ba ba maa ndiglan li fi OJ def mu ne OJ xeexal na leen OJ xeexal na sa Dawda mu ne kenn mënu ko fay dafa bàyyi liggéeyam UN mu ne dafay ñibbisi sa daawda ni ko dina naxari de mu ne ko waaye foog ma dem ñëw téyewaat pati bi nekk ci pati bi di daanoog ñun di jóg ak ñun ba toog ba bi mu tëddee nii mu oo jay na ba muy jigéen mu ne ko taxawal élection dinañ la support tey Oje Jallow Oje Jallow mu ngi tëdd ngi tëdd ñu ñëw fi ñu ñëw fii pour jël na ba jël blessing na ba jël blessing bi mu ne Awa Joob yëkkati ma ñu dem mu ne Awa Joob yëkkati ma ñu dem campagne maak moom mu ne tey am nañ lu ñu naxari musu ñoo am lu ñu naxari ci OJ mu ne amuñ dara waaye nag am nañ yàlla am nañ OJ ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana soo gisee PPP dem ba léegi OJ la waxam bu mujjee ci suñ diggante dafa ne pati bi bum dee nañ góorgóorlu moom fi mu stobe ñun ñu yëkkatee foofu ñu ngi koy ñaanal yàlla mu ne Awa Joob jërëjëf Awa Joob yaa baax su ñëwee fii nga firi saxal kanam bi jox ñu ñu lekk jox ñu ñu naan waxtaanal ñu yàgg sa njaboot gi yëpp Ami Jallo dañ koy ñaanal xaas Ami Jallo xeebuñu ci benn boor ñoom ñëpp doomi OJ yëpp dañ ñu fonka mu ne ñii dañ ñuy distop mu ne waxuñ loolu OJ mu ne ñu liggéey mhm. dañ liggéey bilim bii du dee mu ne Joob ñoo la lii ak di ñaanal nga muuroog jàmm mureeku ak jàmm oojee kenn mënu koo jooy nañ ko ñaanal yàlla ñaan rek la soxla fam jëm lim fi bàyyi yal na ci yàlla teg loxo ma dugg ci biir laaj awa mu ne ko oojee wàccagul ma ne ko kon maa ngay dem mu ne ko déedéet xaaral añ fi mu toog di xaar añ mu ne yàggul oojee wàcc bi mu dugasee ak yéreem yi mu toog ci booram nee na mu waxtaan ak moom ma wax ko nag suma yoon li ma wut si woon mu ne yàggu rek benn paa bu màgget dugg si ci taw bi moom it dugg si ci ki kineeg bi nee na mu jël saaku lomos ko dugal ko ci ron poqtaanam nee na bi ooje yirndoo gis paa bi ci ndox mi dafa génnaat ci biir taw bi gàttandu paa dugal ko ci biir néeg bi taaj ko ci kaw toogu bi mu toogoon ak yére paa bi ni mu tooye mu ne loolu daf ko jaaxaloon ci oojee ba léegi su ko gisee loolu la koy xoole mu ne ba tey loolu la koy nawee wane ni xeebur kenn mu ne lim def noonu man munuma ko yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay liggéeyam yàlla na yàlla teg ndey jooram ci kaw njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na àjjana di këram mu ne mi ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne mi ngi gërëm mu ne tey bisi OJ bii mu ne su waxu dara dinañ xam ni sax am na lu ko naxari mu ne OJ magam bu mbokkal ndey baay moo ko doon denc muy sëy ak moom mu ne yàlla nag mooy borom lépp fu mu yamale sëy fa lay yam mu ne dafa mel ni ba tey ba ba fi OJ di joge moom mi ngi nekk ak magi OJ mu ne te li muy wax óor na njabootam óor na awa mu ne bi mu feebaree daf ko sas ne ko bët bu set dama la bëgg a gis mu ne bët bu set mu ñëw suma ma ñëwul benn fan sax mu ne awa joob faat ki ne ñëwut tey di awa joob kool ko sa nit kaa ngi laa laajte mu ne ko su may wàcc di ñëw mu ne oojee daf ko def ba ñëpp toog su nit ñu ñëwee xàmmewut leen sax su ma dugasee mu ne ko may wan may wanan only wan gannaaw si loolu la ko xale yi di wooye mu ne oojee baax na mu ne seyam mu mujjee bi moo ko mayee te ma doon sey ak magam bokk ak moom ndey ak baay njog di war a di ko maye ci beneen sey mu ne baax rek moo waral loolu oojee ku baax la jël suma njaboot gi mel ni moo leen jur ci biiram ku nekk xam na fi ko ooj mu ne tey rek la gis lu ko naqari ci oojee tey rek la gëm ni oojee dem na biñ ko yóbboo yal na ko yàlla xare àjjana yal na àjjanay këram nee na fi mu dem yal na fa fekk doomam ja jami jàllo ca àjjanay firdawsi ndik doomam jum bëgg la mu teeru ko ca àjjana firdawsi kay ba léegi rek comme ni ngeen ko waxee rek ñu ngi fii si kër OJ Jallow eh, mi nga xamante ne jiitu na si dimanche ji tey nag ñu jébal ko boromam eh, eh, si Wednesday bi on the 17 mai mu nekk bés bu nga xamante ne bés bu rëy la si Gambie ñu gis fii ku nekk gis nañ fi nag ki nga xamante ne Bala Gaba Jaxumpa ak Son Man moom tamit nekk na ki nga xamante ne ñëw na si dëj bi moom it dinañ waxtaan ak moom. waaw fay naa leen fay naa fay naa leen am wal man maay honorable Bala Gaba Diakhompa ah, ma action man déglu léegi gars yi sax original action man no photocopy waaye ndi jàlle njabooti Ogier di jàlle jabaram ak doomam yi ak xaritam yi ak mbokkam yi surtout Ogier moom luy déji Gambia la maa ngi jàlle tam réewi Gambia parce que Ogier Jallow man seetsi naa ko parce que ku xam Ogier Jallow si bam nekkee ministre yuut si bari Oje Jallow moo leen utal liggéey ba pare laa ci dolli li ma neexoon ci Oje dafa oyof dafa wàccee boppam moo tax nit ku nekk la mun a digaaleel ba pare wàlli moom daf ci màcca kañ nga xam Oje waaye depuis bi ma nekkee xaleel boobu moom mu doon toppataat suma papa ba jaxumpa ayam gaaba jaxumpa te ñu bëri ne Oje judóowul Serekunda OJ mu ngi jógee Banjul la judoo Perseverance Street papaam Banjul la jógee yaayam moo judee Kombo ñu bari xamuñ loolu waaye Serekunda lañ ko xaare xamee ngi ko ko jàlle ñu ngay jàlle waa PPP parce que moo taxawoon gis ne PPP deewul moo wax ba tey PPP mu ngi dunda ñu ngi jàlle Keba Jallow mu secrétaire général bu pi ak PPP membres yi yëpp ñu ngi jàlle xaritam yi mbokam yi jabaram doomam yi jarbaatam yi gambe yëpp ñu ngi leen a jàlla Oje Jallo yal na ko yàlla xare àjjana ba ñëw fii seet si ko boobu sax yàlla mu ngi tane. waxtaan ak mu ne li mu waxtaan rek baabal yi sax ko fekk fii ak doomam bu góor bu jógee Amérique doomam bu góor bu jógee Amérique li ñu doon waxtaan mu ne ma dégg suma doom bi mu ne soo dee wax jabaram mu ne su ma làkkee soose <laughs> su ma soose yi baaw mu ne jabaram daf dee ree rek daf ko dee wax ne reewaanal kaset yi ak solmaan yi fi mu dee waxee soose boobu yaran ko may tane waaye xam nga rek su yàlla soxlee moom mooy jël moo tax ma ne yàlla ko yàlla xare àjjana yéen tam jërëjëf li nga na diisoo nit ñi ñu seede jëf yu baaxam loolu la yàlla gën a buga jërëjëf ñu seede jëf ju baaxam loolu la yàlla gën a buga ñu ngi fii am si kër uh, OJ Jallow former minister of agriculture yàlla jël bakkanam nag uh, tey nag uh, ñu jébal ko boromam fii am um, si Joshua mu nekk li nga xamante ne am na solo bu baax baax ndaxte àddina moom noonu la muy tëddee saa su ne eh, man maa tudd Assane Diouf of the formerly from the education department waaw so oje suñ xarit la suñ am di jaamala suñ rakala and we have been moving together with him for quite a number of years. Uh, he's been a very nice and friendly partner, very helpful, very sympathetic, and uh, very truthful in all his dealings with his friends. He was definitely a good man, and we definitely are going to miss him very much. Uh, the first uh, thing about OJ was when he started his political life. He stood in the elections in Serekunda and he lost. All right, but he kept up, kept up the courage. Mu continue until the next election. He stood in Serekunda West, Serekunda East, and he won the seat over there. That was something very significant about about him. Wow, but he's walked all over with the PPP. He was a very loyal supporter of Sadauda. Uh, that one is very much known by everybody in the country. That among all the supporters of Sadauda, OJ was one of the most prominent supporters of Sadauda. Even recently, when Sadauda was not feeling well, OJ would go there every time and visit him. All right, and it was because of that that Sadauda pledged the PVP in his hands, and uh, he kept on with it until finally we saw what happened but uh, otherwise, that's it. Man ko uncle lañ té na ko yalla xari aljana dé di Uncle OJ, veteran politician. Tay mu ñoo nekk xalel dañ daan enjoy PPP. Ñun PPP lañ woon. Waaye suma mom, moom UP la woon. <laughs> In those days, Père Ndiaye. Té na ko yalla xare té xare ko aljana. Dé di def flyam. na saraxam jaaga ci mbokka bi barke salaatu fatiha yàlla def jàmm ci politique bi yàlla tànnal ñu njiit bu Insyaallah barke sedina Muhammad barke kalimatullah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebab turang mang itu dan jaga jeng dikasih fajara wa original wa banjul lah Ah, ñu gëram leen sant leen ba léegi ñu ngi fii am si kër OJ rek ah, mu nekk li nga xam ne lu am solo la ñu gis fu seen parti président bi dinañ ñuy wante moom salaamaaleykum waaleykum salaam sigi leen luñ bokk sigi sawaala ñoo wax yaay kan rek ma ne mun nga ñëw yaay kan. man maay honorable Duuta Kamaso national president PPP party. wax si OJ rek ak sa digganteeg moom ak kañ ngeen xam. honorable bi koy xam OJ bi ma koy xam boobu ma wax ne late seventies yàgg naa ak moom si parti bi time bu moo nekk parliamentary secretary ba moo nekk député Serekunda East fu maa ngi taboo ko to maa ko bindal. ci compagnie jigéen yi time boobu nag activement into politics waaye dama daan ànd ak politiciens yi yàgg naa koo xam léegi nag ba 2016 ak yooyu suñ pati bi gën a jóg waaye balaa 2016 balaa coalition bi dañ daan mit kër papaam waaw after loolu na ñu continuer ak parti bi coalition bi ñëw ñu bokk ci coalition bi mu ñëw encourage di ñu teetee bañ taxawal suñ parti bi ba man yàlla def ñu dem into congress ñu def ma national president on oppose waaw. mun a fàttaliku si moom. li ma mun a fàttaliku si OJ bari na waaye li man njëkk a fàttaliku si OJ mooy li jafe ci doomi aadama mooy baalale OJ mu ne nañ baalalante soo waxtaanee moom mu ne ma nañ baalalante maa ngi fàttaliku benn bés ñu ngi toog di waxtaan ñu ngi wax waxi victime parce que la man victime la ci TRRC relationship mu ne ma honorable mu ne mu ne ma nañ baalale ma ne ko baalal jafe na de mu ne ma man baalale naa dama dama laa ñaan nga baalal kon nag julli ci axan la ñi ci axan la ku mun a yërëm ku yërëm mbokkaam la ku yërëm doomi aadama la maa laa wax benn misaal si OJ su ñëwee këram fii ak luñ bari bari bari dafa jël ay kuddu raxas ko def ko si ndox moo mu raxas loxoom mu toog mu ne kaay leen ñu lekk loolu dafa jafe de ci ku dem ba nekk ministre saa yoo koŋ-koŋe bunti oje mu la salaamaaleykum nga ne salaamaaleykum mu ne salaam egsi xeebut kenn xamul kan mooy kan moom xamul xeet xamul xamul ku ñuul xamul ku xeet moom ne daal nit ñi yëpp doomi aadama lay waaw loolu mun naa koo fàttaliku ci moom ba pare dafa déggu woon ci lim nekk he was real patriotic liggéey réew mi moo ko ñoroon doomi aadama Gambia yi ñoo ko ñoroon suñ soxlay suñ développement rek a ko ñoroon depuis bu mu nekk xalal ba léegi kon OJ daal li mun a fàttaliku si moom bari na bari na kenn mënu ko man na dama wax ne duma wax ne he is the best in the Gambia what he is among the best of the best in the Gambia waaw si ñi nga mun a compter ñu baax lañ soo compter benn moom la wala soo ko compter nga teg ci keneen loolu man sañ naa ko wax parce que dama ko xam dama ko dunda te dama ko àndaa moom yan na ko yàlla yërëm nag fumte da yàlla xaree ko àjjana njabootam nag ñu ñoom itam daal ñu ngi tray de njabootam bi roy nañ ko góor du góor du jigéen ñoom ñëpp a roy parce que ñun niñ mel ak li ñoo duga xam nga politique duñu mer duñ xaari duñ taayi ku nekk anti anti anti anti ñun mi nekk seen yaay baajen anti baajen anti loolu rek lañ ñoo wax akon man len di ñaanal rek njaboot gi yéen nañ dunda dunda dunda be faw lii OJ def yéen nañ def lu ko raw yéen nañ dunda lu ko raw yalla mebet bi am ci deka bi moy ñu am jaama yéen jaama ji continuer si Gambia bi ci barki salatu fatiha waaw jere pare ma ngi wax alaykum man maay national women president bu PPP pare man maay seen candidate bu taxaw di Coast di pas en position be ma ngi tudda baba baba, so gisee man may def politique yalla ak OJ moma dugal si politique suma papa la suma nijaay la man musuma def politique waye mom mom tie suma loxo dugal ma politik, politique te depuis bobu be léegi fu muy dem daf ma yóbbuwaale lu muy def boole ma si ne jàpp ne man doomam la lu mu defal doomam yi defal ma depuis bu mu feebaree tam ba léegi fekk sa xalaatuma sa taxaw saa yu ma ñëwee fii su ma buggee ñibbi mu ne doo ñibbi toogal ñu waxtaan jël ma teg ma si boram su ma buggee ñibbi mu ne dem toogal ñu waxtaan moo man tey suma xol fees na because depuis suma papa bu mu beli. ba léegi moom daf ñu taxawu si place yi bàyyi bàyyiwut ñu wéet si dara dara dara fu bàyyi war a taxaw doomam taxawoon nañ foofu noonu du yëfi pati bi rek sax depuis ma commencé tam ba léegi doomam yi dañ bàyyi seen soxla yëpp fu ma taxaw ñu taxaw fa fi ba fooñi maa ñooma daan fanaan si àll bi so ñoom oje du tidama ma continuer suma campagne bi moo tax depuis sondé bu mu gaañoo ba léegi dama stop suma activité si munuma ñaan ko ñaanal ko yàlla ñaan jeyna ba demal ah, si soxna waaw ba léegi rek ñu ngi fi am si kër honorable OJ Jallow former minister of agriculture Ah, mu def lu bare bare bari ci ah, government bi liggéey lu bare bari ci réew mi mu nekk li nga xamante ne ah, lu am solo la tey Gambia ñoo ñàkka Africa ñoo ñàkka ndaxte ku baax bu demee foog ñu jooy te nit ku baax la liggéeyal na Gambia moo waral xol yëpp a tooy waaye li ci mënta nekk rek mooy ñaanal ko rek moom lañ ci mun na def tey mbokk yi comme liñ leen ko waxee rek ba léegi ñu ngi fii am si kër aji jiitu bi honorable OJ Jallow former minister of agriculture ah, moom nag ah, jiitu woon na si dimanche ji ah, yaa ñu jébal ko boromam tey 17 mai si Wednesday bi ñu fi daawoo ko si jumaay pipeline bi kilifa yu bari teewoon fa si mel ni président Barrow teewoon na fa ànd ak ministre bi Amat ba ak ay député ak ay dignitaires yu bari kilifa yu bari kilifa dëkk bi yëpp ah, ñu fa alaaji Momar Njie mu ngi nii salaamaaleykum encore naka na ngeen def sigil leen sigil sa wàlla ah eh, big loss eh, suñ mag la ma ministre la woon ma livestock so maa ngi ko ñaanal yàlla rek yàlla yërëm ko xaaree ko arjana nga ñëwoon depuis kañ nga ko xam Eh, boobu na de du um, nañ di ko ku baax la liñ wax ci jikkoom yëpp loolu la very free with everybody ñu ko ñaanal yàlla rek ak joboot yi mbaay gannaaw yàlla barkeel leen dundee leen jërëjëf Euh, alhaaji Momar Ndiaye euh, moom tamit suñ ko gisee si jotaay bi rek euh, kilifa yu bare bare bare ñëw fii tey si jotaay bi mu nekk lu solo gis nga ko gaay yi jógee nañ am si jumaa bi salaamaaleykum aleykum asalaam sant suñ borom bu baax sigil sow waala Tayib Sow jaale si luñ bokk waaw ne wa gi day suñ xarit la woon suñ xarit bu baax ñoom ñoo bokk fa li toog fu ñu oyee Mamoudzou yàlla def na man may ceemaan bi moom dimbal la fa woon muy aji di ku baax ku déggu ku xam dégga waaw ngeen baal ma nag ma eegal kàddu gi foofu rek ku baax na. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sigil leen. sigi sa waala man euh, Ousmane Abou Wada. Ah, loo ñu mën a wax sa aji jiitu rek. ah nit ku la. def na kóotaam ku yaatu la tamit buga doomu aadama ah, ku yërëm doomu aadama la tamit lim am yëpp jox na ko doomu aadama yi mu toog so yal na ko yàlla yërëm te fare ko si àjjana yi gën a koy jërëjëf ah, gannaaw bi nga xamante ne gars yi jërëjëf mbokk yi ba léegi rek ñu ngi si am si kër honorable Oujé Jallow mu nekkoon former minister of agriculture nekk ko nit yi uh, ci politique bi ku nit yi ràññeel si uh, bi uh, tey bésam bi ko gis nga xamante ne nekkut nit ku ndaw represent na Gambia bi fu nekk liggéeyam kenn du ko waxati ci Gambia bi ñu fekk fi nag Moses Ndell Moses Ndell tamit ku ko xam rek xam ko si ku nga xamante ne ku xam nit yi la xam ko si liggéeyam xam ko ci lu muy def nuyu nañ la. Euh, fay naa la. Euh, waaw waaw euh, di ñaanal alaaji OJ ak ñi jiitu ñëpp di leen ñaanal yàlla jégal leen arjana di nuyu seen viewers yëpp tey mu nekk Saturday Saturday pour lan di whole of Gambia even di diaspora because tey soo waxee OJ koo waxal rek da moom mu ne moom moom wala OJ moo ko moom euh, nit ku baax la ñu euh, defal suñ laas respecté waaw. lan nga si OJ ak lan nga mën a ko OJ si sa ndaw si jamono politique am ak yooyu. suma ma doore ci politique am ni ma taataan euh, yi lu ma waxtaana moom la parce que amoon jamono ma jegeñ ko lool moom nekk na ndaw mu ngi duggee ci ndaw. Euh, ci politique euh, OJ nekkoon na banque OJ nekkoon na coopérative coopérative euh, mu xam ko lool balaa moo dugg ci politique politique nag ndawtu la si duggee te liñ ko bàkkee even ci juma bi mooy dëgga dëgga moo ko dugal ci politique ndax rali bu gaay amoon mu nekk xalel ci youth wi ngi PPP ñëpp di wax di tagaate waaye ba mu eggee dëgga ba mu wax noonu moo ko tontu politicien and a great politician for that matter 1972 mu election first election unfortunately mu but five years later 1977 bowala lañ serikula is east quest. west eh, mu taxaw nag east ak góor Antoine eh, eh, Diatta mu dal di oje foofu la OJ njëkkee duga ci parlement mu nekk def mu si minister njeka. Uh, water resources and environment moo ko ubbi uh, after mu dem to agriculture agriculture nag li fa OJ liggéey uh, gooma dina amati ministre bu ko liggéey because li tax mu mun faa liggéey loolu OJ dafa jaar agriculture mu indi jamonoom ci la Gambia doon gën a génne gerte ci dëkk bi ba pare béykat yi jox leen doole coton muy cotton am solo lool Gambia di export yëpp Gambia di export yëpp so mu nekkoon lu am solo nit ku baax la oje am na am na diina soo demee ci juma bi tey loolu lañ ko njëkk a baakee pare ku bëggoon nit oje soxlaam nit ñi mooy soxlaam fi mu nekk nii kër gi ba bi oje di feebar soo fi ñëwee da nga nit ñu bari ñu ku si nekk ñëw ak sa soxla waaye aji awa jabar ji eh, soo ko fekkul ci sal bi sax oje aji awa dina leen waxtaanal dem jéem a si beneen jigéen ju baax. ñu ngi koo jaale bépp Gambia te di leen gërëm yéen ci seen li ngeen a def nii eh, di ñaan nag eh, moom Oje ak ñi jiitu yëpp yàlla eh, xaare leen àjjana jërëjëf. trop jo moom waaye Oje? la moom it keneen ku ko xam la tey sa nit jébbal nañ ko boromam mu nekk li nga xamante ne national Morning la Gambia bi poko moon ku nga xamante ne duñ ko teel a fàtte ku nga xamante ne he was a legend ah, liggéey na ci wàllum politique bi liggéey bi mu ci ay ah, si wàllum social kàttan ba koy ko ko xam foo tudda rek OJ lañ laa njëkk a wax jooju jaalewaat la waaw jërëjëf jërëjëf suma mag suma mento suma lépp biko moom kenn la ñun kerceen dafa am luñ dee baakee nit sen wax naa ko kada West Coast ci Peter Gomez ma ne ko kii lañ euh, texet la texet nag yàlla moo dee taana texet te du ñëpp la ko dee taana yàlla taana OJ jox ko melokaan bi am dafa jafe nag ci nit te foog ñu gëm dee seet yeneen nit ñi seen melokaan ñu roy ko pour ndëkk bi dem kanam du ko moom Gambie la gisoon gis doon dara luut Gambie Afrika xam naa ci dara bi ko sebinti laa ñëw kombo mu jàpp ñu teete ñu njabootam yëpp ma xam leen ñi maa jàll ci affaire audio yi bëri na man christian la moom muslim la waaye Sénégal suñ la jàngee loolu daf ko may cobele boo xam ne ñëpp la boole am ñëpp la uufandoor religious tolerance waaw religious tolerance dëgg dëgg lu gourmet ñu xebe ñu waaw James wax na ko honorable James Gomes wax na ko waaye dañ koo ñaanee rek jëm gënal ko fi mu jógee te nit ñi tam nañ roy ci audio nañ roy ci audio gambeen bu mel ni audio dafa jafe ma digante yalla wa gambien bu mel ni uje dafa jëf dafa jafe de waaw maa ngi ko ñaanal fan bu yalla fa mu jëm gënal ko fi mu jere jërëjëf yo tam foog ñu gërem la bi ko yaa am ité di daw suba ngon meg soo ne liggéey bi ngeen jàppa téye nii yàlla leen ci yalla taxaw jërëjëf ndaw si jërëjëf yàlla yokkaleen ma xam jere jërëjëf ba léegi rek ñu ngi fi am si kër OJ Jallow euh, mi nga xamante ne jébal nañ ko boromam tey euh, mu nekk li nga xamante ne bés bu métti la ci Gambia euh, mu ki nga xamante ne naan jël 46 la juddu yàlla jël ko ci 2023 mu nekk bés bu nga ne Gambia bi duñ ko fàtte ndaxte dimanche ji Gambia bi duñ ko fàtte kër gi fees na tepp ba si Wednesday bi buñ koy jiitalee boromam ah, ba léegi rek ah, mu nekk li nga xamante ne ak ah, Gaye Njoro mu li nga xamante ne soo xoolee nga xam ne OJ niti niti la niti Gambia la ku ñëw rek li moo wax ak moromam li ñoo wax nekkul benn képp ku ñëw rek yaa ngi wax li nga xamante ne am na solo yaa ngi wax wax nga xamante ne moom lañ dénkaane dinañ dugg si biir nag seen ndax dinañ mën a am si biir ah, bu ko defee ñu déglu lan lañ wax jëlee si jumaa ji ak yan kàddu dénkaane honorable lawyer Dabo ah, egsi na ah, lawyer Ousseynou Dabo egsi na dinañ ko lii moom tamit léegi léegi ni mu ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam Dabo ngay ko moo lee ko fay naa sigil na ko si luñ bokk sigil leen seen wàlla nga ñoo wax sa diggante koo class from one ba from five It was a very studious people dum nekkoon school amul books and uh, after bi jóge school we am into various spheres of operation got a monster dog we've been together in everything. And uh, uh, he has been the face of the struggle in this country. ci jamono yoo uh, borom uh, doomi réew mi xam nañoo nekk tumaaranke ci seen réew OJ dafa taxaw jaay bakkanam uh, am seetut lu mu ñàkkaan waaye li Gambia tay reumi mi ñu koo xam ne euh, façon am wax ma ne mu saam ci réew mi waaye su fekkee mos na am réew mi ñu tuuti lañ woon. mën nañu fàttaliku si OJ si jamono feebaram ah, politique am carrière am lan nga si mën a fàttaliku ak lan la daan a ah, ndax amoon na any problem with any political party ak moom unity unity rek la daan la daan preach te man mi su taxawee dafa wax ne ñooy wax ne Mr Dabo la te nga ñoo xamul Mr Dabo jabaram yi daf leen a wan jabaram yi li fil na nekkuñ soose daf leen a wan kenn ci jabaram yi suma jarbaat la soo oje luy fosta national unity ci loolu rek la nekkoon luy saxal jàmm ci réew mi loolu moo taxawoon taxawaayam te we pray to God the Almighty that he be received in the highest of the Jannas yeah Ah, kooku mooy woon ah, honorable lawyer Darboe parti leader United Democratic Party ah, dégg nañ ñoo nga xamante ne wax na ko ci kii Mr Jang ñuy nañ la dégg nañ nga xamante ne eh, lawyer wax na ko dégg nañ ba léegi rek kilifa yaa ngi ñëw di jaale si difi monde ba légi kilifa yaa ngi ñëw gannaaw bi nga xam ne jógee nañ si fi daaw bi Eh, jébbal ko boromam eh, président bi teewoon na fa ak ay ministre ak ay dignitaires yu bari kilifa diina yee kilifa aada yi ñëpp woon nañ foofu noonu si eh, jumaay pipeline bi lañ ko fi daawoo jébbal ko boromam foofu sa cimetière yu mu nekk tey bés bu nga xamante ne Gambia du ko fàtte mu nekk bés bu nga xamante ne bés bu rëy la tey ñu gis fi ku nekk mu ngi ñëw pour jaale si ki nga xamante ne mooy honorable OJ Jallow mu nekkoon ki nga xamante ne mooy lu jërëjëf ma ne jaale nañ baax na ñu ngi laa jaale yow tam la moom nag waxam mun ta sëri xam naa ne xol baa fees ndaxte moo ko OJ ñoo bokk ndey baay mu nekk li nga xamante ne am na solo bu baax a baax tey comme ni réew mi yëpp lii nii réew mi yëpp a am naxar euh, ñu ngi fii am ci pipeline ci kër euh, su ko defee rek salaamaaleykum nuy nañ la fee euh, imaam ka nga ñëw jaale si OJ lan nga ñu mën a wax si OJ waaw moom man ci wàlli mbokka bi Euh, jabaram mooy aji awa Diop aji awa Diop yaayam aji Tida Saho aji Tida Saho ak aji Mama Jaabi ñoo bokk benn aji Mama Jaabi moom jur aji Yaamu Ndaw Jeete jigéen boobu moom moo ma jur man euh, su ko defee ci wàll boobu wàlli aji awa Diop euh, ci la loolu laa ñëwee jógee Jaytakunda jógee eh, Dipakunda di jaale loo xam ne ñun ñëpp a ko bokk ci wàlli OJ ci boppam moom baayam Alaaji Amadou Diallo xariti suma maam la xaali Omar Died kon eh, soo seetee Alaaji OJ lim defal réewam ak askan ak lim doon def ci dëkk bi fii Eh, su ñoo binda histoire Gambia moom turam war naa bokk ci tur yi nga xam ne ñoo gën a feeñ ci history book boobu eh, Gambia yëpp santa nañ ko gërëm nañ ko ñaanal nañ ko yan na yàlla nangu ñaan yan na yàlla kontaan ci moom eh, yu baax yi yu baax yu foor yiñ wax ci jumaa ci mbiram yan na mu fekk dara ci àllaaxira lu ëppalul bi jaaxi man la imam Basiru Dramé man maay eh, imam ratib Latrikunda Jaman ah, man maay chairman yi Supreme Islamic Council ci KMC ilimaan yi yëpp man may seen chairman ci KMC kon ci wàlla boobu tamit maa ngi jàlle eh, eh, aji awa Diop ak njobootam bi yëpp ci dëj bi bi nga xam ne amul dëj bu mel musuma koo gis waaw ah, parce que ki nga xam ne moo fi jóge dafa mel ni soo gisee fii dafa mel ni nit ñi dañ kontaan te te nit moo fi jóge ah, waaye yow lii du mil da nga foog ne xew la te du xew waaye ki fi jóge lim fi bàyyi ñun xam nañ ne alaaji Oje du dee mukk fii lay des ba fa kon loolu la jërëjëf. Basiru Euh, gis ngeen ko moom tamit euh, ekkati na ay kàddoom euh, gis nañ fi tamit Basiru moom tam PPP moom it moo xëy ba léegi rek ñu ngi fii si Kër Ojeng comme ni ñu leen ko waxee gis nañ fi politicien seen Basiru nuyu I'm sorry. man nuyu nañ la. waaw ñu ngi laa fay. sigil la luñ bokk. ah sigil sa wàlla. nga ñu mun wax si oncle OJ rek bi nga xamante ne so Sunday bu mu gaañoo benn tey ku nekk mu ngi wax jëfam yu baax ku nekk mu ngi war si Gambia. ah OJ de lim def ci Gambia yëpp yëpp wane nañ ko tey soo soo nekkee ci jumaa ji nga gis doomu aadama yi fa ñëw naan ne liggéeyal na Gambia ba ba wàcca lim defal Gambia unite na Gambia setu doon amutoon affaire tribalisme o amutoon any any division moom ñëpp ñëpp benn lañ woon OJ Paul la mos naa toog fii Paul ñëw di ko laaka Paul mu ne ko déedéet laaka ma olof ngo ñi toog ci saal bi yëpp ay lañ dégguñ dégguñ laaka bi so OJ contribué na lot even 2016 bi ñoo campagne fii nii lu bare bare la def si si coalition bi nit ku baax la liggéey na Gambie so politiciens si yëpp dañ ko war a émuler ñu mel ni moom ndax mën a bàyyi legacy bi mu fi bàyyi li wane ne ne alal du dara waaye jëf nga bàyyi legacy turu ba mooy lii OJ turu bi bàyyi tey borom alal dee na amu ko booba 5000 nit ñoo nekkoon tey ci jumaa ji te amul kenn koo xam ne kii wax nga benn baat bon ci OJ ñëpp a wax lu ñëpp a lu baax ci OJ every other di fila nan naan mom. moom Oje oh dafa tek bol daf ko bañ bi moy añ moy ah, ñëppay mooy ñëppay añ déj bu nek dafa dem amu dara amu dara lu bin o oh Oje dal moy won Gambia you know he was larger than life so maa ngi mom sama politician ci ne nañ o Oje oh ñu jema a wax jàmm dox o Oje ci tanka yim don do ak lim do way jama la don do pour Gambia ak lu yobu Gambia kanam Oje mu sa liggey wala wala am ne dafa divide Gambia development Gambia lii bolé askan bi ñu dem ñu nek benn so maa ngi wax Gambien si yëpp ñu mel ni OJ legacy bi mu fi bàyyi nii tey for the next ten years OJ dinañ waxtaan ay mbiram parce que waxtaani OJ du jeex tey li gars yi bëggoon a def mënuñu woon a discuss affaire yi OJ ci jumaa ji you know benn three hours ñëpp bëgg a wax affaire yi OJ OJ is larger than life so you know oje dañ war a bind ay book ay book ci moom nit ñi mën a jàng ci moom for future generations to comme attitude bi mu amoon towards Gambia am nga after 1994 ah, bi coup bi amee OJ was the only one that stood the ground nekk fii nii xeex dictatorship ba dictatorship génna ñëpp daw dem American ambassador bi dañ ko ooyee ne ko dañ laa jox asylum yaa sa famille pour mu ne moom daw kon moom du gor bàyyi Gambien waa Serekunda yi nga xam ne ñoo ko defoon MP jox muy naawal affaire bi dem bi métti mu jox kon du gor so fii la toog am ba Yaya Jammeh génn fi so façon yi ni kooku noonu kenn mënu OJ kenn mënu loo ci war am na loo am na looy bàyyi man de suma nit la woon suma papa la won he was everything to me daf daf ma advice ba pare pour mu wax la du dara ci mom daf la wax lim la way pare ngeen ngeen ngeen ngeen continuer was a perfect passing ko am ki dal man munu wona gis any dara dara dara rom du wa affaire yi du dugg ci affaire yi do you know so ñu ko ñaanal yalla yalla na yalla xari aljana ñun ñep yalla nañu yalla may lim am man man man ci gata lool lool lañu ñaan jere jere awo woni kadi PPP o PPP Uhuru, o PPP, o now ni o PPP, o mai o PPP. Ko ɗum ko loyal neɗɗo waɗɗo loyal tun kulɗo Allah neɗɗo gonga ko ɗum tun wawde wonde o gollani leydi makko men second republic ala ko ko yiyali jungo régime yaya jamme o sokama o sokitama ala ko ɓe hollanimo e yangue ɓuyi kono kanko ko ɗo o woni o yiso wuuray ko ga so maya ko o rindi haa o maayi awo ari kadi condition 2016 ko annduɗa noon gambie hannde fotaali yejjitude condition 2016 par ce que ko condition 2016 allah rewri okki men jam e salam e leydi ndini yimɓe ɓen fof woni gootum min yejjiti politique min ndaara leydi ni min darani leydi ni haa allah waɗi min heɓi peaceful démocratique change haa min hocci adama baro eh, ex président adama baro excellenci allah waɗimo président mi yimmi toon kadi min jooɗi min gollanimo ga transition makko min golli haa allah waɗi o yaltini men kono haa hannde miɗen yetti allah par ce que hannde si tawinomo histino winde histori histi ko histi tum on tigi wawata yijjitude minen yetti allah ko heɓi kon ko enen fo heɓi banjur gambia ɗo kala ko neɗɗo heɓi ko enen hawti ɓayo enen fof koye yimɓe gootum ɗon koye siɓɓe kadi koye gootum on oje noon ko mayri ko yimɓe yiɗamo yiɗa ɓe o yamira ɓa kadi ko boƴƴi ko woni konngol gootum himɓe fof yo woni gootum wata men daaruɓe o ko christian o ko muslim kala ko waawi haalde soon daari intabiuji makko kala ko foti haaleede goɗɗo sono haala ko ɗum allah subhanahu wa taala maake so haala e jam si on wawa haalde jam fanko kanko noon toujours himo darani fof o wii enen fof yo woni gootum e ndaaro leydi amen min wasa luutondirde e haala somin luutondiri kadi e haala ɓay ɗum kadi ko jamanu sen luutondirde ko allah ko noon tagiren somin luutondiri kadi en yaafodiren ɓay kala mo annduɗa waɗannoma ko boni o torike o allah o yaafike o ya kankadi o landike yaafu o jooni o yehi alhamdulillah rabbilalami ko luttuɗo kon on tigi hen fof yen woni gootum wonɓe diina ɓen yoɓe acci koɓe wiyata kon woɓɓe no wiya haala haalaji ko annduɗa wonna e leydi ko annduɗa jiiɓa e leñi jiiɓa e, e diina en enen fof wonan gootum ko ɓiɓe jelo acci atti ɓiɓɓe sappo e goo machallah rewɓe njelowo tigi debbo goto heɓi debbo goto heɓi awa dow mo manno rewɓe woɓe kono ko hande hande hande ko atti ko debbo goto wiiteɗo awa dow alhamdulillah yewtoɓe yewti télen football nokkel fo taway o memminike Alaga ubebenake deidi makoni. Siko football, siko ga sukabe, siko be kala mo andu da no foti andede ko tagado. Ɗum fo ko waddi himɓe wona goto mi jogo jokkondira. alhamdulillahi rabbil alamin no yetti allah fota noon omo yalla hokkumo jannatu firdaus inna ya fofuɗo fof hokka jannatu firdaus en tori kadi ya allah yo weltano en sew ƴettan ƴettan enen fo amin ya rabbalamina jarama boy lawma sabi ala mouhamado ono kadon jarama boy barka miɗo ɓoy eh, mo yiɗuno on noon eyi miidia on mo yiɗuno on tuma on tigi ari o heɓa intervie makko ko ɗum waɗi hannde harimen nde wadde live streaming subaka ko feƴƴi ko haren no kadi ɗon wakkille ɗon jarama ke waɗanimo awod o waɗa ɗumɓe welti ke fota alhamdulillahi rabbil alamina o welatanae noon ko sukayna mo heɓino awoodo mo wuuri ɗum ɗo hareno ɓuray teddude teddi e kono noon neɗɗo siɗa okkudemo goɗ ɗum hollumo wiidema ko ni ɗi gonnatama e gurdal ma yiya naftoroɗa musiɗi ma yiyaɓe naftoro ah, hande par ce que hande gabe waɗimo ɗo awo ko goonga awoɗon ko kaaɗirtata min daara tedduɗam alhamdulillahi rabbilalamina ko haala tum wontiɓe yo haalu woni e ɓerna mum wata haalu wiɗen yo hes wona anndi noon goonga ɓeya ko gambiyan noon way noon ɓe manti goɗɗo o tumo maayi ko ɗum min mi winni mi faala kay goɗɗo mantana simi maayi mi wiyali yo ɓe manta kono noon kala ko onni ontiɓe anndi a nilan jonnon ngami wuurɗo simi maayi ala komi naɓa sina komi gondi ko yami jarama an kadi a gollani leydi ɗi allahu amina hawti jarama boy jigéen bi nga xam ne moom moo taawee suñ kanam ñuy wax ak àddina ñun noppi ñu bari jooy nañ ndik xale yooyu liñ doon wax kon fa tabarakallah jigéen boobu nag mooy aji awa Joob awa aji awa Joob nag moom ñu na bokk sant ak germande bi nga xam ne loolu lay lañ wàcc mbiram bu ci crédit boobu ñun ñoo koo jël parce que ñun ñoo bokk ak moom euh, deret kon ñun kontaan nañ tey li ñu wax ci jëkkëram ak li ñu wax ci moom ci boppam parce que lu bari loo xam ne mun na ko <laughs> jabar bi moo ci dimbali li ñoo wax ne moom yaatu na <laughs> jabaram moo yaatu li nga xam li ñoo wax ne baax na ci lekka eh, jabaram moo baax ci lekka jabaram su yaatuwutoon su baaxutoon su do su xejalutoon nit ñi lu bari li ñoo waxte ci alaaji Oje kenn du ko kon su ko defee nag ah ñun ñu ngi leen a ñu ngi sant yàlla di leen santal yàlla ne ñun ñoo Oje dañ bokk te am nañ dalil bu wér pour wane lu parce que sanga bi Seydina Muhammad mu ne suuf nit ku foor bu deeñee àddina ci ñi nga xam ne bokku ñoo moom su ñoo ekkati seen loxo yow da ngaa jël montagne nga taxaw nga ekkati sa loxo kon ñun duñ jooy tey dañoo wax alhamdulillah dañoo sant yàlla ne Alaaji Omar Diallo ñun dañ bokk ak mom ñu bokk ak jabaram santay ko yàlla nak di jërëjëfal ñep ñi nga xamne wax nañ lu baax ci mom yana len yàlla fay li ngeen bay seen soxla ñëw fi tay yana len yàlla fay di jaxi seen seelil wubi sant nañ ñëpp jërëjëfal nañ ñep ñaanal nañ ñep kontan nañ ci yéen yana yàlla kontan ci yéen li wax la bo xamne ci suma imam ratib la jóge moy imam Yusufa Jeyte lii mooy kàddu waa Dipakunda maa ngi koo jël ma jébal ko suma yaay bu mag mooy aji mu ndaw Diop mi nga xam ne moom mooy magi eh, aji awa Diop mu egal ma ko ci aji awa Diop ak ndooba doomam allahumma salli ala sayyidina muhammad a yi lii de Alimam Fallou ah man uh, maa diwu ndooy rakku ndooy donc maa jël kàddu mi nga xam ne moom me ma jéem a kàddooy nii jóge ànd ñu baree baree bari parce que famille bi ñëpp bu ñu yëgee lii am nañu lu leen metti lool lool lool ñu nangu ko ni Odié meloon ci famille bi la daawul tànqam lu dara dafa jëloon ñëpp def leen comme ñoo bokk ndey ak baay bu weesoo loolu famille bi yëpp ñuy magu Fat Diallo xadimi ak ay rakkam ba ci xaja ak ñëpp vraiment

ñu ngi leen ci massawu di ko jaale famille bi yëpp di ko jaale Awa Diop jaale xale yi ah. ci bi ñuy ñëw nag Kange Ndoye mëlee ñu àndal muy suñu sœur sama soxna tamit mu gën a leen Ramatulaay Amadou Ndoye mu ñëw na puisque bi ñu fi nekkee di liggéey dañ ko ubbi loon yoon ngañ mu ngi fi ci délégation bi ñoom ñëpp ñëw nañu ak ñi nga xam ne ñëwuñu te seen xol yëpp ñoom ñëpp yëg nañ ko ñoom ñëpp jox nañu seen njaal pour que ñu ñëw yegge leen ko pour wan leen ne bi ñu ñëw kii puisque Odyee nag ci boppam dafa doonoon suñu xarit li xam naa ne ci depuis mu ba léegi nit ñaa ngi wax ci lu baax te duñ ko mën a tariir loolu moom la mais nit nag mënul weesu baax te la may wax mooy yàlla bu ko fayee xolam te dina ko ko fay amuñu dara luñ ci ragal ku baaxoon la yàlla na ko yàlla fay xolam parce que ka ngay ñaanal naan yàlla na ko yàlla fay xolam du ci am xel ñaar mooy koo xam ne mérité wu ko wante moom def ko mérité dëgg jur def na ko ci famille bi def na ko ci ñëpp ñu mu man repère la woon man

lool dal ci gattal mom la non ak lu mu bon bon il faut ma yëkkati fa kàddu yoy pour témoignal leen. jere na jërëjëf rafet na. ñu ne may yóbbu. nekk nii. ñaan nit ñi yëpp. ñi ngay ñaan nit ñi ñëpp. biñ dooree di wax. biñ nañ ne. Cheikh Omar Diallo. mbiram. buñ ko doon wax. buñ ko doon wax. fii ba déwén. du tax mu jeex. su ko defee nag jataay bi xaw naa gudda liñ ci wax ñun ñëpp nañ ko doyloo te wax ji yëpp mooy ñaan la rek koo xam ne yéene bi mooy yàlla yóbbu ko sa àjjana yi gën a kowe amee itam njabootam mu raw ni mu amee woon Alaaji Omar ci barke yonent Yàlla Muhammad barke alxuraan ji ewi na ñëpp ñu ngi gërëm itam kilifa alaaji alaaji Ousseynou Dabo so jumaa ja ba léegi mi ngi ànd ak wax muy wax ne mook alaaji Omar school diir bu yàgg loolu nag kóllëre la boo ñun ndongo daara yëpp nii lañ war a mel lu nekk rek gannaaw yàlla boole nañ si nañ si nekk benn gërëm nañ len sant nañ leen yal nañ yàlla uutu si suñu soxla yëpp fajal ñu ko guddal fan yi wéral cër njaboot gi yàlla téye leen boppam soxna awa itam soxna awa itam yal na ko yàlla téel boppam ba li mu nimse ci alaaji oje ak njaboot gi yëpp yàlla defal te muurloo ko ñu ngi gërëm ne ñoo jóge ko ba Sénégal ñëw file doxoon nañ ñaan kàddu léegi ñu leen di gërëm tàmbale ba fi xarit yëpp Robert Nanak. James Gomez. James Gomez. mi nga xamne ne moom itam waxoon ci turu xaridi wax jo xamne ku ko déglu mi nga xamne wax joju amul ben wax bo xamne ne mun na wër ma muy wax bo xamne ne nako gëna rafet ma mu gën ko kawe su ko defé ñu ngi ñaan mbooloo mi yëpp ñu ñaanalaat El Hadj Omar Jalle yàlla yokk leeram itam mbokk gi yëpp d'accord nañ ne mu de kilifa yi ñu ne amul saraxu ñetti amul juróom-ñaari fan ba ñaan fukki gudde yàlla nañ ko fekkee incha allah su ko defee. ku bàyyi ko fii itam jamono boo wéetee wala jamono boo julee nga yokkal leen ñaan waaye dawru yëpp ñu yokkal leen ñaan yàlla yóbbu sa ajana yi kowe salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaatu ala nabi mbokk yi ba léegi rek comme ni leen ko waxee ñu ngi fii am si kër OJ Jallow gannaaw bi nga xamante ne tey lañ ko jébal boromam bu ah, fi daaw ko nag ah, fële sa pipeline jébal ko boromam si Serekunda kilifa yi ñëw di jaale kilifa yaa ngi ñëw ku ci mel ni honorable Ousseynou Dabo gis nañ ko fi ah, Papa Ndiaye tamit bu PPP egsi na am léegi léegi nii moom tamit dinañ waxtaan ak moom rek. Euh, ndaxte ku ne Papa Ndiaye ne PPP euh, depuis sa papaam ba tey euh, kon tey su ñëwee si dëj bi dafa war a si dëj bi kon Papa Ndiaye dinañ ko jaal dëj bi Papa Ndiaye sigil leen ko. waaw ah, sigil sigil leen ko tamit sigil maa ngi jaale famille bi di jaale di whole Gambia ah, di jaale tamit ah, di président Adama Barrow di jaale PPP parti bi. dina rek um, OJ is pillar. was a pillar in the history of Gambia um, uh, ñu mi nga xam ne xalal lañ foog ñu roy uh, foog ñu roy si moom yoo um, jëlee ñëpp xaman nañ ko ku nga xam ne ne gisul tribe xaman nañ ko ku nga xam ne ne waxkati la te xamoon nañ ko moom këram bi fii nii saa fi ñëwee every day rek taami añ ñëpp a fi day ñëw di añ soo firi na ne oo jël nit ñi la uh, di ko ñaanal yàlla suuf sedda si ko am yàlla noflaay mu nekk jantu firdawsi the Nyah nit ñi nag a way of making sure that um, OJ's uh, legacy and history we preserve both through um, audiovisual uh, through um, uh, written um, documentation and so ko in the near future and in 1500 years time nit ñi who was OJ Jallow and how he contributed towards the development of Gambia first in the uh, first in the first republic Second Republic ak um, currently ak uh, naka la jëfandikoo youth si parce que maa ngi dégg si waxtaan ne moom was the one of the few people first people nga xam ne dañ introduce nawetaan in Gambia ñu ñu bari xam so maa ngi ñaan uh, historien si maa ngi ñaan uh, journalist si ñu dem toogaat ñu gëstuwaat OJ lan la fi def and ñu publish publish ko su ko defee his memory will be will be with us forever. jamono xale lan nga mën a fàttaliku rek si heure yi li nga xamante ne daf ko daan wax oftenly eh, di ko ñaax nit yi di ko wax Gambians. ah koto OJ moom one of the things nga xam ne ah, maa ngi ko mën a fàttali mu ne soo demee jàkka di war a julli doo gis su gaa taxaw si bi doo xam kanaay Christian kanaay kanaay kanaay soose kanaay njaago kanaay saraxule ñëpp. Gambians lañ ñëpp su ah, ñëpp muslims lañ so loolu was exemple pour wan na ni rek ah, ñëpp benn lañ and ah, moom gomoon na ne xeet bu nekk religion bu nekk am na right in Gambia ba pare ñu respectante so OJ was an example ba pare tam su waree wax dëgg daf ko lay wax so that's one of the things nga xam ne ne jànga naa ko si moom ba tey rek di ko ñaanal am na ñu bëri nga xam ne def na ko def na ko diggante moom ak nit ñi waa xamuñ ko lu ma wax rek mooy ne il faut. fekkante ngeen PPP. waaw waaw waaw man bu ma nekkee he was one of the one nit ñi nga xam ne daf ma daf ma encourage pour ma taxaw as the leader of the party. Ah, war na ma justification si ne moom bu mu doon nekkee minister he was in the early thirties so now is our time young people yi dugal si politique. So that was one of the motivation motivate nama being hamna um seek for the leadership of the party. Well Bumaga ambassador Tambik Tahut um every month Euh, saa yu naka ma kool ko ah, seek advice am parce que ne la lan ku la jiitu su nekk bu lëndëm moo laa mun a wax fooy toog so OJ moo ñu jiitoon si politique OJ moo ñu jiitu woon si ah, jamalante nit ñi so saa yu naka la ma ko dee kool ah, seek advice am so loolu la rek thank you very much jërëjëf Njaay euh, nekkoon flag bearer bu UDP euh, PPP after ñu def ko ambassador euh, moom nag moom it ñëwoon na jaale si dëj bi comme niñ leen ko waxee rek dëj bi tey ñëpp a ñëw gis nañ tamit Malick Jones man suma wa affaire oncle mel ni oncle nekk person fii ci réew mi ku amul oncle Oje amuloo kenn kilifa la borom diine la nit ku baax la nit ku fekkee démba am démba mun na natali démba saa yu ma jaaxle rek fii laa ñëw ci oncle Oje naa ko laaj te dina ma wax lu bari imam babali dina seede loolu driver bi dina seede loolu fii suñ kër la ajuma ju nekk suñu wàccee juma fii la ñoo ñëw waxtaan ak oncle Oje diisoo moom taranga do suñ digganteeg moom oncle OJ li ma ko xam at yu at yu bare bare bare bi maa jóg mu ñoo teete bébé fa bala moo feebar sax bi maa dem Qatar fi laa ko ñëw fekk si ma ne ko oncle OJ dem Qatar mu ñaanal ma ñaan yu am solo ma dem ñëwaat bi ma ñëwee fekk mu feebar waaye bi ma dem Morocco sax ñëwaat naa ba ci moom ma ne ko maa ngi dem Morocco mu ñaanal ma kër bi suñ kër la moom laa anti awa ma ne ko yow amuloo dëj ñoo am dëj ñoo toog ba bés ni tey ñuy woy président Uncle OJ Uncle OJ dañ ko waroon tagal yaaga yaaga yaaga lii mooy problème non lii mooy problème moom laa bëgg a wax ne fa laa ñëw fa laa doon ñëw nii Uncle waroon nañ ko woy bu yaaga du tey nit ki doo xaar ba mu nga ko door nga ko door a woy loolu tax ma bëgg a Jibril nekk na kenn ci kilifa yi Uncle Assane Jibril képp koo xam ne nit ki ci biir réew bi mu ngi bind ci sa avant nga dee mu ngi bir ci sa sa mbir loolu mooy lañ bëgg a def buñ xaar ba ki dee ñuy woy mbiram ba moo dunda ci lañ war woy mbiram te onkul Oje yal ko yàlla may arjana ah, yegg na kowe yal na ko malaka yi teeru nit ku baax la onkul Oje amut morom to be very short amut morom Onkul Cerno di brodam suma xarit la dirma. ma Cerno xam na suma diggante onkul Oje ni ma mel Oje noonu la mel ak Cerno meeru ko noonu ak anti awa meeru ko noonu ak doomam yi ne am na ñu ngi fii góor ak jigéen yëpp fii suñu kër la ñun ñoo am dëj waaw yeneen am dëj dëgg la sigil leen ko kooku mooy eh, Malick Jones ah, mu nekk li nga xamante ne am na nag nekk ki nga xamante ne dafa religious tolerance ba nga xamante ne eh, gis nañ fi ku nekk ah, gis nañ fi ku nekk amad yeen yi ñëw nañ eh, ñëpp ñëw nañ Euh, tey nag kon ñu ko jaalee Gambie yëpp bu baax a baax a baax di ko jaale àdduna yëpp dégg nañ kàddu yi nga xamante ne kilifa yaa ngi ko wax euh, depuis euh, bu mu jiitoo ba tey depuis monde si sonde bi ba tey ñi kilifa yëpp a wax kilifa yëpp teew na fi ñëpp nekk nañ fi ñëpp ñëw nañ ku si mel ni looyo ba gis nañ ko depuis si jumaa bi ñëw na ñoom Papa Ndiaye kilifa yëpp a ngi ñëw Ah, kon lii sant yàlla la kon lii ah, noonu la kon ah, ogul oje ñu ngi koy jaale waat Gambie yëpp Gambian Talents TV nag ñoo leen fi nekkaloon tey rek waxtaan ak askan bi waxtaan ak dëkkandoor ak jege ñaale ñu wax ñi li nga xamante ne moom lañ xam si yëfi oje mu nekk lu ama am solo jërë ngeen jëf Okay. But be careful once you listen to it. Uh, Hello, everybody. This is a message from Washington West African Center calling us to mean a community that is loving, peaceful, and free from domestic abuse. Kakuran kiabi, purinja bantefu kunkubanya West Africa, bantefu kunkuru chagui, kanjaka Washington State. da nata daga purpubba kan manga sonki kan ciki da ya tanja wucin mate kan manga sonki a cikon mene ka chok a cikon mene ka rukusu ko ga chumal da mene chirinja di affaire bungale ka chok ko ga chumal specially da ya tanja gillen putukot lole jaka purpuka piyesir ka tanja jaka chuba bukinja buka ka kapiyes buke furpici banya meklibe kabukat fa gillespi mene ka guskoki ka manga sonki oma ciri itenja gi cili lefut kot lole jaka natang ka koki o ka manga sonki itenja ka koki na ka manga sonki a noran yent na bakat ma pipi noran bakat mak dan bayent kom japicin ga kapu tink ba nyamba mekin en bi cirka parno jotia jaka purpu tinku kun bukaron jaka wulutu kurang di ba nyamba mekin e buka tiji un jotia wi ti brombo kun buka purpu nat ti kag manga sokin koron karo kam manga son cirka bufu bande o cir pro ko mene ka jota nyanuwas ma bu dor a ciko mene a bofari ko mene warata son guru batu fet de bu dorinja kam manga sonki nyaka na kink chit ko mene itupiki ke sarinya ki jappa sepe na ron na ron ko bara chiko mene ga kapu nyaka na wol a chiko mene chirpi chokinja a chiko mene chirpi tinkitaninya ma o chingi nyaka na na tuwol ka yaburu li ka purpichi so na chili jaka nyaka na kam manga sonki ki kan duwa kink di piche ninja di itanja daga koko mene ngi chirpi wol mene chirpi kakani njo fet a purputu inja teka tailor na mangallar na kom mine e purputu inja jaga cibalon cit purpun na ka gosko ki o kam manga sonki gi kapu ci kam bof kam makine ka ti inja man jaga punan ka gosko ki ka ci kak o chimmene ka parna ka gosko ki o kam manga sonki am do wak legi